auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñeenti ñi yeewoo ci réew mi góor ak jigéen mag ak ndaw di rafet seen ànd ak rajo télévision wal fajri rawatina seen émission diina ak jamono diina ak jamono ñëwaat ak yéen ci sujet d' actualité yi fii xew rawatina nag ci wàllu wér gu maanaam mbirum santé bi yoon jële ko nag eh, ci faatu ki nga xam mooy Aïssa Diallo di xale bu jigéen bu amoon fukki at ak ñaar faatu ci hôpital bu Pikine gannaaw ba mu faatoo nag mu yeewaatu fitna goo xamante ne mel na ni topp na hôpital bi lu yàgg ndax itam nee nañu daal wàllu càggante daal bokk na ca la ko rey ndax urgence la waroon ñëw ganaaw ba mu amee accident boobu daanu bi am ay gaañu gaañu neen bañ ko fa indee itam nag mbirum laajante koppar ak balaa ñu koy laal ak yu mel noonu dugg na ca ba tax bi mu faatoo daal euh, njabootam jàpp ne wàllu daal sàggante am na ci waa hôpital bi nag nee nañu euh, sore na lool ak loolu ndax def nañu li ñu mën itam ngir sooy bakkanam loolu indiwaat nag wax joo xamante ni itam dafa mel ni dugguleet foofu ci hôpital bu Pikine mel ni itam nag duguleet ci hôpital fii ci Sénégal waaye itam mu mel ni kaaw pikin dafa bëgg a yàgg te itam bëri liñ koy coow loolu nag lan moo ko waral ñi ci xam dara ñu ko wax lii nag war a itam nekk yoon woo xam ne day tax ñu waxtaanee mbiru hôpital ci senegal ak mbiru wér yaram lu tax nit ñi am ci jafe-jafe lu tax itam buñ ci jotee itam la ca waroon am ñi ko war a def itam léeg ñu toll ci war a wutu ay jumtuwaay wala ñu manqué ko ña liggéey ndax nekk nañ ci anam yu tax ñoom itam seen xel dal bañ mën a tal nit ñi ndax itam loolu rek lañ leen di doyee ndax itam la war ci hôpital ba yëpp bi nga xamante ne nekk niñ koy duppee bu nekkee niveau 4 yu mel noonu ndax lañ koy jox ci ay koppar wala ci ay matériel jumtuwaay dina méngoo ak niveau boobu ba tax itam ku fa dem am li nga soxla loolu yëpp nekk coow loo xam ne daf fay yàgg ci wàllu hôpital jaaxal ña fay liggéey nag jaaxal itam ña fay fajoo jaaxal réew mi d'une manière générale ndax itam ku xam wér-gu-yaram xam ne bokk na ci li yor réew tax tey ñu prier ci ay nit nag ngir mën cee waxtaan ci kaawu Aïssa Diallo boobu naka lañ ciy jóge nag ba itam gis saafara bu tax nag nit ñi léegi wàllu accueil ci hôpital yi bu ñëwatee am ca la leen gënal ndax nee nañu ñi leen di teeroo daal léeg-léeg mu jaaxal leen lool ndax mbir mi itam mbiru réforme ay textes yoo xam ne dañoo màggat la wala lan lañ war def ci hôpital yi ba méngoog li askan wi xaar ci moom dëgg fii ci senegal bokk na ci suñu gante yi Souleymane Diomane moom nekk secrétaire général Sintras nekk syndicat boo xamante ne mu ngi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram Souleymane Diomane maa ngi lay nuyu maa ngi fi ak Mbagnick Diouf di sama naataango nekk journaliste itam en santé population et développement Mbagnick Diouf yow yaa association boobu ñu ngi lay maa ngi fi ak ki nga xamante ni mooy Pape Daouda Diène di spécialiste en santé publique nekk sociologue daw Daouda Diène maa ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi nii ak itam ak Alassane Sène nekk secrétaire général union nationale de consommateurs du Sénégal nekk itam président retraité ci UNCS Alassane Sène maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi rafetlu seen teewaay yéen ñëpp ci ni ngeen ñëwee si suñ plateau fii tey lii nekk problème boo xamante ne yàgg nañ koy waxtaanee ci wàllu sante waaye itam mu am ne fu mu yeggaat bi yoon tax ñu suliwaat ko ba mu indi coow rawatina fële ci hôpital bu Pikine ci loolu itam dañuy laaj rek à tout seigneur ten honneur ki nga xamante ne moom mooy secrétaire général Sintras di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram di Souleymane Jomane ñu ràññee ko lool ci wàllu syndicalisme boobu ndax lii am ni lu la bett la wala lu nit mën a xaar toujours ci hôpital la wala bi mu amee daal ban jàngat nga ci mën a def pour askan wi la. waaw jërëjëf euh, balaa may dugg ci waxtaan bi mën nuyu sama naatango yi fi to toog teewi mm-hmm. euh, di rafetlu teewaay bi ak jotaay bi euh, di mas di présenter suñu condoléance ci famille xale bi fi jóge mm-hmm. ndax ku nekk dëgg na ci condition yi mu fi jóge tamit. Mm-hmm. Eh, ci tuuru personnel santé yëpp maa ngi présenté suñu condoléance famille bi di wax ni li leen dal dëgg la metti na wante mën nañ koo jàppee ne ndogalu yàlla la ndax loxo yàllaa ngi ci tamit eh, bien vrai que ci doomu aadama la koy jaarale buñ ci tolloo nag dinañ wax niveau de responsabilité yi fan la toll ak kenn ku ne li li ko war ci yëf yi te defu ko Euh, donc à l'introduction yooyu laa daal laa mën a wax mm-hmm. gum di présenter njaalu personnel santé bi mm-hmm. euh, famille bi euh, di leen wax ni di leen ñaan tamit ni ki fi jóge yàlla na ko yàlla tabb ajana yàlla na ko xaral ajana yàlla na ndeem mi nga xam ne moom la fi wàcc te mu nekk moom kenn kot ak yaayam yàlla na leen yàlla teg loxo yàlla na leen yàlla jàppale ci seen bébétu àddina mm-hmm. waaw maa ngi di leen ci dellusiwaat léegi kon ci loolu xaw Mbagnick Diouf yow nga nekk journaliste yàgg di yëngu lool ci wàllu santé ci seen association boobu nga jiite te itam euh, di observateur boo xamante yaa ngi seetlu bu baax santé publique au Sénégal lii xew nekk loo xamante ni itam fu mu xewee rek bañ yëkkati ko dina am toujours nu ñuy gisee ci wàllu communication ak parce que dégg naa ne sax tey conférence de euh, sitinu travailleurs yi dañ fa saaga journaliste yi dal seen kaw ni bokk nañ ci ñu ko yëkkati ci loolu bi nga ko déggee itam. ci sa liggéey ak li nga xam droit à l'information ak yu mel noonu ak alerte bi war ci yooyu naka nga jàngatee mbir mi. Euh, jërëjëf Ousmane ginnaaw bi ma nuyoo ñu ma seqal plateau bi rawatina mag bi Souleymane Jomane maa ngi nuyu euh, képp koo xam ne yaa ngi seetaan wal fajri di la nuyoo moom di leen gërëm ci invitation bi. di comme ni ko Souleymane waxee rek di massaw njaboot euh, Aïcha Diallo di leen jaal di leen ñaanal rek yàlla may leen xolu muñ. ndax metti na lool tiis na lool waaye nag ma leen jàpp ne ndogul yàlla la waaw Ousmane euh, laaj bi mooy euh, yëf yi man bettuma ndaxte bëri na ci ay structure de santé yoo xam ni euh, mbirum communication duñ ko def wala buñ koy def dañuy bàyyi ba yëf yi jàll ñuy doog a def communication loolu nag nekk na jafe-jafe bi nga xam ne moo gën a yokk sax mbir ñu problème ndaxte bu fekkee dëgg la waxuñu kenn wax sa secret médical waaye bu fekkee yu mel nii dafa am dangay wax ak nit ñi mu leer comme saa nit ñi daal di ko ndax nit ñi boo leen waxul rek ñu wuti information feneen tax ñu information ba ñu wuti feneen mën na indi ay gàllankoor wala ci fonctionnement bi waxuñu nag kenn mu livre secret médical mais am na ci ñenn ñoo xam ni boo leen ñëwee di laaj information dañ la dawloo ba doo am li nga bëgg ba tey jii maa ngi liir ci journal Walfadjri ñu ne bi fa bi demee kenn bëggul wax moom sax dañu ne sax benn journaliste bu mu fi dugg te amuloo autorisation te ab journaliste lay def liggéeyam la fa nekk rek lay mën a wax du inventé que li nit ñi wax mu wax ko dafa jottali rek waxu nit ñi donc loolu vraiment mën naa jàpp ne mbir mi bettuma mais tant que réglé wuñu problème communication tant que réglé problème information mën nañ jàpp ne lu mel ni dina fi continuer am ndaxte nit ñi gis nañ ko yëg nañ ko xaj na ñun taskatu xibaar yi ñoo koy yaatal mm-hmm. ma fàttali rek ne itam lu ne def nañ ko pour euh, am kenn ci côté ministère de la santé ba fi may dugg fii mujjul antu euh, jokkoo nañu ak communication depuis démb ci guddi mais ba tey jii may dugg nii ñu ma diggoon waaye mujjul antu beneen côté itam jéem nañu saisir ay yeneen nit ci hôpital ba ba ñu désigné fa nit mais ba léegi itam mujjul antu pour équilibrer waxtaan bi nga xamante ni itam baaxoon na ci ñoom ñu ko dund teewee ko itam ñu ñëw témoigner comme li nga wax noonu nga xam ne dañuy communiquer parce que buñ communiquer ko itam nit ñi nañ communiquer ci ñoom parce que phénomène bi a noppee waaw Pape Daouda Diène yow ngay sociologue nekk spécialiste en santé publique muy loo xamante ne tey baat boobu santé publique boo ko tuddee ci Sénégal nga tudd béréb boo xamante ne ñu bëri jàpp nañ ne dafa feebar te ma war a faj ñi feebar ci côté boobu yow yan gàllankoor nga gis ne bu ñu sàgganee sax yu mel nii wala yu raw lii mën na cee xew waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla encore une fois de plus di julli si bi di remercier waa Walfadjri à l'occurrence Ousmane bi ñu permettre aujourd'hui ñu war a mën a waxtaan ak suñu mbokk sénégalais yi ci tiis bu naqar bu metti bi dal waaw bu ñu waxee nag lii képp kuy sénégalais ma def digression di jaalewaale non seulement njabootu ay sa Diallo ak njabootu bépp sénégalais bu boo xam ne yëg nañu mbiram ñàkk yag mbiram parce que peut-être ci ay sa rek mbir mi soog a feeñee mais mbir yu am nii dafa yàgg am de manière répétitive peut-être nit ñi teg ci seen tànk kon cela suscite encore une fois de plus ñu débat yu mel nii ñu toog di ci waxtaan. Euh, li may wax ci mbirum euh, li nga xam ne moo am santé publique au Sénégal xam nga lii ku xam Sénégal ni santé bi doxee warul bett je m'explique bu ñu interroger l'histoire en 2010 jamono yi moo Diagne Fada moo nekkoon ministère de la santé euh, waa syndicaliste de la santé yi ñoom Jo Mané. doon revendiquer pour ñu def yenn centre de santé de référence yi en hôpital de niveau un ci jamono jooyu parce que sénégalais yi dañu neexul peut-être am ñoo xam ne comprendre ñu bëri ñun comprendre ñu tey ji dañu war a xool ni lan mooy hôpital lan mooy hôpital ak ñan ñoo war a dem hôpital parce que tey ji ni demee hôpital hôpital mooy lan tey ji ci explication hôpital mooy bërëb bu fajukaay ba nga xam ne nit ki dafa war a dem faju même bu yorulee dërëm dafa war a dem faju ko en dëgg ñàkk dëgg la ni am na ay charge yu demee noonu yu nekk ci biir yu yoo xam ne ni dëgg la mi ngi ci biir wante néanmoins li may wax ci loolu mooy ñi nga xam ne ni tey ji ñoo nekk dans les hôpitaux di fa liggéey su problème amee dañ naan médecin bi te dañu war a fàtte ni hôpital dafa am tout un ensemble am na ñoo xam ne ni ay brancardier la am nañu lii la maanaam li sama doyen wax léegi tout à l'heure mhm. adduna lépp communication moo ko yor parce que sans communication nit ñi dañuy nekk dans un fourre-tout dans une situation anarchique et aujourd'hui au niveau de la santé publique au Sénégal li fi am neexul kenn parce que li ma leen waxoon ci jamono yooyu di ko waxaat ba sànq ba tey di ko wax mooy problème mu santé publique état bi daf war a gën a veiller duñ ci gën a veiller mooy am na ñoo xam ne dañuy sol blouse blanche wala di fa liggéey foofu amuñ fa place parce que tey jii ki nga xam ne dafay jurer sur le serment d'Hippocrate di waat ni du xaalis du koom-koom du dara moo ko tax a jóg lu dul fexe faj sur euh, doomu aadama yi kooku war na am attitude ak comportement yi nga xam ne ni bu nit ñëwee nekk ci jafe-jafe wala ci nattu nattu war nañ ko mën a jël dans les plus brefs délais pour admettre ko effectivement dans des urgences mais nag aujourd'hui au Sénégal ndax tey jii hôpital yëpp wala centre de référence yëpp am nañu effectivement ay services d'urgence loolu dafa nekk loo xam ne ni dëgg la ak organisation administrative yi nga xam ne ñoo nekk ci biir opito yi dañu war a taxaw veiller ci loolu parce que politique de santé au Sénégal dëgg la am na nu mu tëddee mais am na li nga xam ne ni ñoo nekk dans un ensemble wala di faut exercer wu ñooñu aussi dañu war a organiser wu davantage à ce que ñoom ñu xam ne ki seen rôle premier est de servir les populations ça aurait pas été les populations ñoom du ñu nekk foofu donc encore une fois de plus je ne suis pas d'accord avec mu naan ay yàlla Sénégal fii nag ku dee rek ñun la Jo Mané la du ndogalu yàlla Dieu a de tuer tuer depuis longtemps il y a des yoo xam ne dafa am ça vient de l'homme de la responsabilité d'être humain mais tey jii am na ñoo xam ne tey jii jàng nañu am nañ seen i kii yu teg lépp am nañ seen présomption mais bu ñu demee dëkk bu ne États-Unis sax ñu fa liggéey ak santé foofu boo seetee une deux trois y a les y a ñëpp a ngi ci y a les avocats foofu bu nit ñëwee déjà boo ko accueillir rek da am problème mën nañ ñëw jël la saisir la yóbbu te yoon dal sa kaw. Et en sociologie de la santé, il est dit quoi Un accueil, un, madame, une malade, une malade, un malade bien accueilli, 50% effectivement de sa maladie, madame, guéri na mais da ngay ñëw ci centre de santé wala nga ñëw ci hôpital duñ la xool la faute ou bien les engagements mën nañu wax ou bien les responsabilités seront partagées parce que bu ñu ne avec l'organisation mondiale de la santé un médecin pour 1000 habitants mais dëgg nag aussi médecins yi am na médecins yoo xam ne dëgg la est-ce que ñoom aussi mën nañ jël en charge tout un ensemble de ces populations il y a tellement de fourre effectivement dans le milieu effectivement de la santé publique quel soit ak nu mu mun tamit ce qui s'est passé avec Aïssa Diallo amoon ak békaay bi nekkoon euh, au niveau de Ogui tànk bi damm ñu ñëw opéré ko amputé ko finalement mu décédé j'avais fait une émission ici pour dénoncer cela encore une fois de plus nous demandons à ces syndicalistes de la en sorte que ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal parce que dëgg la le rôle régalien effectivement du syndicaliste est effectivement de défendre l'intérêt effectivement du personnel soignant à savoir du travail de la santé mais aussi de le rappeler li nga xam ne moo li dañ teg fii mooy fexe nit ñi ñëw di faju ñu faj leen dans les meilleurs délais dans les brefs délais aussi foofu la notion du temps mi ngi ci mm-hmm. pour ne pas trop effectivement avancer en lii rek laa amoon en introduction li nga xam ne moom laa si doon indi Pape Daouda Diène Alassane Sène yéen ñu ngay ñeene saytu nag euh, way jëfandikoo yi ci hôpital bi loolu itam bokk ci li nga xamante ne bokk na ci seen xeex ay at a ngi nii rawatina nag retraité yi nga xam ñoom ngay gérer di ay mag am ñu leen war a accueillir am ñu leen war a teeroo te teeroo bi itam doon loo xamante ne mooy garab bu njëkk bu ñu war a jox malaat ci fan woowu li ci nit ñuy dund ak liñ ci gis est-ce que laajul tey nag ñu fexe ba réconcilier waat population bi ak structure de santé yi nga xamante ne dootuñu am présomption bu ñu dem ne accueil bi mën na am jafe waaw jërëjëf Ousmane ñuy profité si plateau bi di leen gërëm di leen sant ndax euh, plateau yu mel ni ñun association des consommateurs lu mel nii rek la ñu bëgg di fekkee di si wax ndax ñun lii yàgg na fi am daf lu amati rek la lii moom te bés bu nu ubbi woon benn numéro vert ka nga xam ni mën nga fongal limi saare yaa banda faasi oroso gi bés boo yeewoo rek la ngay jottanteeg santé nga wax ko si téléphone bi kon defe naa ni kon tey yi Sénégal dañuy tëj hôpitaux yëpp waxtu kii benn la rek du dara kii du dara ndax dafa am loo xam ni euh, ñun dañ ko seetlu ñun association des consommateurs toujours nous tirer sur la sonnette d'alarme fii ñëw naa fi si ay plateau yu bare appareil bi nga xam ne moo paanoon ñu yóbbu nit ñi ay Maroc ay loolu yëpp euh, am na fi ci réew mu toll na Sénégal bu nga xam ne presque bu ñuy wax euh, sous région bi moo fi jëkk nekk en avance par rapport à tous les pays africains lim fi tubaab yi wàccoon si ay infrastructure ay hôpitaux ay yeneen ak taleeg yeneen tey jii réew yu bari romb nañu mais léegi foofu lañu war a seet lan moo indi lii ndax tey jii lii day lii dal Aïssa Diallo euh, man dama waxagul sax waxu xaalis mais docteur bi Ababacar Diop ngeen permettre ma ma lire passage bi nga xam ni moom si boppam man lii laa mënul comprendre docteur Ababacar Diop une intervention chirurgicale peut parfois mal tourner je regrette le docteur Ababacar Diop a dit ses regrets il aurait fallu que sa maman nous amène ce qu'il a ce qui a blessé sa fille mais on a rien vu il n'y avait pas de saignement et cliniquement tout était normal dans ce cas on ne pouvait l'opérer il fallait juste la, la surveiller. Et quand finalement nous avons décidé d'opérer, nous avons découvert que le gros intestin de la fillette était perforé et ce jusqu'au niveau postérieur. Alors yow fan la mos gisee ci àdduna nit buñ la indil malaat mu ngi mel na ku nu fetal nga ni duma ko laal indi leen fetal gi ko rey ndax moom la wax fii nit ku daanu ci garab ñu indil la ko nga ni indi leen garab ga mu yéegoon ba daanu. nit ku glissé si douche nga ni indil leen ma karo baag ndox maag saabu ba mu euh, dax mu glissé ba damm parce que bala ngay laaj mosuma gis ñoom xanaa lii buñ ko indi woon dañ koy suuf sele sele kooku defe naa police moo ko yeeyoo yow bala ngay laaj indi leen la nga xam ni moo indi problème bi danga nga ko war a faj ba pare defe naa négligence commencé na foofu ndax fekkoon dès le début ban ko indee rek jéem moo xam na mu demee waaye indi leen la ko gaañ xaleel fa muy gaañoo sax doo xam fan la même buñ ko mënoon indi sax loolu ban njëriñ la amal hôpital bi déjà muy loo xam ni man bala ñuy wax xaalis foofu laa jëkk téere suma atta moo ko wax de bu ko waxul yit moo ko wax ñu bind ko man li ma liir fii mu ngi nii ni fàng kon donc y a des choses yoo xam ni euh, man dama mosul gis benn yoon rek si hôpital fu ñuy laajee boo feebaree wala nga accidenté ñu ni indil oto ba mu accidenté wala ba lu ñu koy faj loolu amul fenn c'est la première fois bu ko waxee it juum na waruloon wax loolu ndax am na lu am te nag li ñuy wax rek euh, yàlla Dieu il bon dos lu xew rek ñu teg si loxo yàlla ndogal yu bare loxo doomu aadamaa ngi si te lu la mënti wax si santé ni ma la ko wax tey jii li li ngay xam ne li ñuy def si ay affaire man suma soxna mi ngi nii li léegi laa ko jot sama soxna dafa dem di defi analise mi ngi nii bërki démb la dem lëndi mag moo xam ni elle a kayit yaa ngi nii elle a 67 ans ñu defal ko prise de sang ñaari flacon ba mu fees ñu ni ko war na jël sa résultat bi démb mu dem démb ñu ni ko affaire bi baaxul dañu jëlaat sa der mun leen man man ndekki naa ñu ni ko du si dara jëlaat sa deret résultat yaa ngi nii ndax lii c'est sérieux ña deret jooju fan la ne lan moo si baaxul man dama jël woon résultat yi mais bu ma ko jëli woon daal mu dégg kon nga xam ni santé bés bu yàlla sakk rek ñu ngi def ay musiba kooku moom kenn mënu leen defaan léegi nag ndax moom liñ leen jox moo doyul wala nin si duggee nit looy dugg rek da nga siy dugg ndax loo si am mu mu barkeel parce que dugg si métier rek parce que da nga chômé te santé boo dee seetlu presque hôpitaux yi soit hôpitaux yi ay mairie rek la régime bu ñëw wàcce ña fa nekkoon indiwaat si ay nit ñoo xam ne mosul def santé yàlla am pagaay si biir santé ay waa mairie yi parce que comme mairie yi amee léegi euh, ñooy fay ah, kon ñoo fay dugal seen i nit kon ñu bare defuñu santé mais ñi nga xam ne dañu jàng santé defe naa ni am na ay erreur yoo xam ne duñ ko def gis nga bu ñuy wax fii Ousmane fii ba ëllëg ni ma la ko wax bés bu ñu ubbi woon benn numéro vert képp koo foo si àdduna rek bés boo yeewoo rek si sante rek nga am problème woote si kon duñ fi jóge mais lii du ndogalu dara daamu aadama mu ngi si loxoom mu ngi si Alassane Sène euh, Souleymane Diomane nga xam ne ñoom ñëpp plateau boo ko waree kon gis nañ ne hôpital par ay niveau la ñii dañoo jàng seen métier ñëw nekk ay spécialiste ñii ñu nekk ay personnel d'appoint boo xam dañu ñëw di dimbale nit ñi yooyu yëpp nag boo ko dajalee nga xam ca buntoo ba fa nga yàggee ca médecin ba ak kay opéré yooyu yëpp ak kay beeg chaîne la boo xamante ne ñëpp dañ ko war a xool dysfonctionnement yooyu lan moo koy jur ci mbir mi problème pression la problème moyen la ñàkk xam la après aussi sanction yi ciy tegu lan la war a doon. Euh, merci Ousmane. Euh, boo ko seetlee bi ma joxee parole bëggumoon dugg ci débat bi mun ko ma bëgg a ñoom ñu relancer débat bi parce que professionnel laa fa. Mm. bugguma leen jox orientation tamit ci ci li ñu waxtaan moo tax ma bàyyi ñoom ñu introduire pour ma mën a dugg ci waxtaan bi dëggantaan Ousmane li ma la mën a wax mooy dañoo nekk dans un système de santé défaillant défaillance bi mu commencé ci état euh, bi événement bi amee boo ko dégloo ministre wax na ba wax dañuy sanctionné ministre moom wax na benn dañuy sanctionné ministre ku muy sanctionné moom ministre il a fauté son service a fauté moom bu dëree leneen war a am balaa muy sanctionné moom moo war a démissionné moom ministre bi lu tax mu war a démissionné ministre bi moo war a joxe jumtukaay def joxu ko Sénégal 36 hôpitaux fanweer ak juróom-benn ñoo am ci hôpital mu am ñeent établissement public de santé muy 41 établissement public de santé 36 yi ñooy établissement public de santé hospitalier. ci deux cent deux cent deux cent milliards onze milliards la ñuy affecté quarante huit établissements publics de santé onze milliards yooyu xam nga xaalis bi lan la nu ko lay dugg duggee foofu dañuy wax ni euh, benn hôpital ñu ne consultation par exemple cardiologie cinq mille la état nee na non dafa cher ci population def leen ko trois mille francs man ma fay deux mille francs yi tiers tiers payant boobu moom la état di joxe comme subvention. d'exploitation donc dafa bokk ci recette hôpital état du à part loolu état amul leneen lu mu fay dugal ci hôpital bi amul leneen lu mu fay dugal cooli cooli yëpp loolu rek la onze milliards ci presque deux cent milliards la ñuy dugal pour quarante et un établissement public de santé Ousmane jamono bi may wax ak yow nii moment bi may wax ak yow nii subvention hôpital bi hôpitaux hôpitaux Sénégal troisième tranche ak quatrième et deuxième ak troisième tranche duggagul. année bi jeex na hôpitaux yi jotaguñu seen deuxième ak troisième tranche fan la ji hôpital hôpital di jël moins boo ko jëlee politique de gratuité bi CMU dialyse césarienne sésame de, euh, euh, de zéro à cinq ans depuis dernier trimestre 2016 la ga e état gi jëf dugal xaalis ci structure de santé ba ci poste de santé ba ci district yi état dugalu fa xaalis muy bor bu ko topp. mais bu bor bor bu rëy boo xam ne moo gàllankoor euh, structure de santé du hôpital kese district centre de santé ak euh, poste de santé moo tax ngay dégg fan yi xale ngay dëgg syndicat yi un peu partout sur l'étendue du territoire ñuy yëglu mais ministre bi moom ci boppam moo moo du dafa xëy na dafa dafay bunóoyu wala dafa dul dëgg mais il faut mu dëgg yuuxu liggéeykat yi problème dafa bëri ci secteur bi créancier bu mag la fayul état bi wax ne damay dugal xaalis ana état bu muy dugal xaalis état tiers payant lay dugal hôpital recette hôpital yi la état du dugal xaalis boo xam ne xaalisam la wala réew mee ko moom ñu ne nañ ko dugal li liggéeykat yi li liggéeykat hôpital yi liggéey ba pare te nga xam ne état war na leen ko fay boobu xaalis la état war a di dugal par le biais de la subvention kon social bi ñu wax CMU ak gratuité dama la ne hôpital bee ko dernier trimestre 2016 mhm. la ko état gëj a bi bientôt 2017 jeex loolu est-ce que ñun ko xam ba pare ba ñu situer responsabilité état deuxième problème les ressources humaines état mooy recruter mooy affecté c'est toujours l'état état mooy nommé directeur hôpital c'est toujours l'état l'administration de l'hôpital état la c'est des établissements publics service public la encore état la donc la main de l'État l'État a plongé sa main dans la de kii à l'hôpital jusqu'au coude mm-hmm. l'État est entièrement responsable de cette situation di nga liggéeykat yi boo leen fekkee conditions yuy liggéey mm-hmm. ni ñu sonne ci yenn malade di lamb seen poste di ko di jënd ay garab malade mm-hmm. di ngay gis ay liggéey liggéeykat yoo xam ne dañuy boot malade parce que brancard amul doo am chariot doo am leneen nga jël malade yow nga boot ko parce que doo ko bugg a bay ñeneen Ousmane man yëkkati naa rachis cervical wallahi sama diggante ak yàlla yëkkat naa service cervical yoo xam ne amul chariot amul dara parce que bu umoon keneen jël ko bu ko keneen jël ko dee dee paralysie mais comme que xam naa ni ñu ko war a téye man maa ko yëkkati mu ma téye ko man. yóbbu ko parce que chariot amul. ragaluñu deret fu deret amee dañuy dugal suñu loxo guddi ak bëccëg ñun on cohabite avec la mort dañoo waajal suñu bopp ba pare guddi ak bëccëg yaa ngi gis ku ñëw ne la na nga def ça nga xam ne mu ngi situation critique quelque temps après mu yàlla moom loolu la ñuy dund ñun. kon sacrifice boobu ku mu gërëmul. Mhm. bu ñu xalaat. secteur santé bi ñu liggéey hôpital di sol blouse blanche man liggéeykat yi man damay wax ñuy faj dëggantaan. Mhm. parce que lu ne ku mbir boo daje boo gis. da nga fay fekk lu ne. Mhm. mais man fajkat yi laa wax ñoo xam ne malade moo leen tax a jóg. ak seen ak ku laay taalaa. man ñooñu laay wax dama ne ñooñu ku leen gërëmul bu leen xalab Sénégal passé na loolu nangutuñu dañ ko dul nangu tax léegi. la ci des mooy nekkinu ñuy liggéey hôpital nak ca naka la ñuy nekkee foofu ak naka la ñuy nekkee seen kër Ousmane ju nga état bi na liggéey moo ko war Sénégal dañ ko dañ leen ko jox pour ñoom ñu liggéey ñu def résultat moom la leen Sénégal yi di xaare deux cent milliards presque mënoo ko yore ba pare di joxe onze milliards hôpitaux quarante et un établissements publics ngay xaar résultat te la ngay joxee du nekk loo xam ne yow yaa ko subventionné sa bopp yow manque à kii manque à gagné ngay fay loo xam ne prestation yi la bokk loolu mooy jafe-jafe hôpitaux yi dama leen dernière subvention li ma lay wax nii deuxième troisième tranche dugul Ousmane mhm. liggéeykat yi nga xam ne JK la ñu nekk mhm. liggéey nañu neuf ba presque dix mois trois mois lañ leen fay alors que janvier lañ leen war a commencé fay ba léegi ana xaalis boobu fu mu dugg JK la coopération japonaise fay na dugal na ko ministère des finances Ousmane dama ne ñi ñuy recruter fonction publique poste budgétaire la janvier ba décembre mois de mai la recrutement yi génn ba moment bi may wax ak bi ñuy tëj kii bi ñuy wax ni tey décision yu bëri ñu bëri jotuñu ko am na ñoo xam ne jot nañ seen décision ba léegi jotaguñu seen salaire xaalis boobu poste budgétaire xaalis boobu fu muy jëm Ousmane motivation deuxième trimestre troisième euh, troisième trimestre quatrième trimestre ba léegi dugagul liggéeykat yaa ngi koy xaar dama ne ñun dañoo taaxirlu bay ministre bi mu jël ay repère pour mu gën a xam moo tax jéemuñ ko bun xataal ñu bàyyi ko ministre bi mu ñëwee béy boobu toogul ak syndicat yi toogul ak ñun luy ndeem moom ba léegi mu mu ñëw bu toog ak ñun pour lépp. te urgence am na urgence yaa ngi li ma lay wax ni yooyu nekk na loo xam ne mënut a xaar. daar daar lañ ko war buñ ko deful. Mhm. ci jafe-jafe la ñuy dem. mais mhm. ministre bi day politique. Mhm. ci politique am la nekk. dama ne bu politiquee bakkanu doomu aadama yi. doomu aadama dinañ ko fekk ci biiram il faut mu génn ci biiram mu toog ak syndicat yi ñu wax ko lan moo fi nekk. ñu wàccoon bu laajee ñu wàccandu ak moom ci terrain ñu wàcc. mais mbir mi mu xam ko mu gis ko moo gisal ko boppam. mais discours politique bi ça va pas régler le problème. kon ñu le problème de la de cette fille. Mhm. je dis dema c' est vraiment maa ngi koy méttitlu di ko naqarlu. dama wax yàlla dama ci boolee yàlla. Mhm. parce que gëm naa ni. Mhm. ak loo mun lu mun a demee ndogalu yàlla a ngi ci man gëm naa loolu man. la ci des nag doo loxo doomu aadama ngi ci. Mm, négligence loolu gëm naa gëm naa ne loxo doomu aadama ngi ci. Mm. mais il faut ñu situer niveau de responsabilité. Mm-hmm. li kii di wax docteur ci docteur Diop. Alassane mm-hmm. waaw li muy wax ci docteur Diop. Mm-hmm. docteur Diop peut-être moom xamu ko. docteur Diop c'est quelqu'un de koo xam ne conscience professionnelle daf ko am trop. docteur Diop jaral na ko léppam mu yëkkati ko mu def ko mu def ko ci malade. docteur Diop. je pas je suis pas sûr ma di def di ko défendre fii de parce que moom mun na défendre boppam. mais li nga xam ci moom mais la nga la may wax ci moom la. Mm-hmm. docteur Diop ku ko fekk ci hôpital muy liggéey. Mm-hmm. def naa leneen ngay xalaat ci moom lu dul ni malaat bi négligence am na ci côté ku ku ku mun na toppatoo malade yi. Mm-hmm. ku nangu sonn ci malaat la. loolu maa ngi koy seedeel Sénégal yëpp di ko xam. di wax tamit suñu camarades yi nga xam ne ñu ngi sitting fële. ma ma leen di ñaan pour ñu arrêter seen sitting wax leen ne tamit nii. seen di am na ñoo xam ne mun nañ leen mun nañ wax ci seen tuur mm-hmm. loolu am nañ ko loolu du côté boobu lañ war a tiit mm-hmm. ñoom liñ leen war a teg mm-hmm. ci naqar wala ci. Euh, ci ci sanction. Mhm. dinañ ci ànd ak ñoom ba mu jeex takk du leen bu ñu leen bàyyi noonu ñoom kese. d'accord donc duñ ko wéetoo duñ ko duñ ci wéet tamit dinañ ci ànd ak ñoom jàppale leen ànd ci ak ñoom. parce que tamit ci seen liggéey la ba keroog bi ñu am satisfaction. loolu lañ leen di wax ñu ñu ngi leen di ñaan. Mhm. maa ngi leen di ñaan ñoom ñu dellu ci liggéey bi delluwaat ci maladie parce que maladie population defuñu leen li war a mën a tax ñoom ñu banku seen loxo. maa ngi leen koy ñaanal pour ñoom ñu dellu ci loolu bàyyi ñu li ci des parce que état la te ñun ñu dinañ jëfalante ak état ci mbir mi. Souleymane Somane dinañ ci dellu soit léegi. Mbagnick Diouf ci buñ tolloo fii gis nga ko wàllu communication la boo nangul communiqué dinañu communiquer ci yow te itam lii nga xamante ne xew na jot na tey ñuy leeral yu mel nii bu subaa aussi. mun a nekk loo xam ne dinañ mën a situer responsabilité yi mais buñ ne hôpitaux yi hôpitaux yi te hôpitaux yi aussi wutuñ loo xamante ne comme li Souleymane Diomane wax dinañu jox nit ñi tableau bu tax ñu mën a xam yëf yi leer aussi problème la ci côté boobu yéen ñi journalistes yi yëngu ci wàllu santé ndax euh, ay atelier ay rencontre yi ngeen di def du ngeen ci wax ci wàllu yoo xamante ni la gestion de la santé publique d'abord pour nit ñi mën ci am idée bu claire. xam nga Ousmane. Hmm. Euh, dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo ŋànk santé bi dañu dul déglu ndax yàgg nañ leen avertir maa ngi fàttaliku am na ci du mois de mai 2016 am na ONG bu tudd ci CODEF bu defoon benn étude. sur titre observation trimestrielle bu doon wax ci nekkaay def ko ci dix localités bokk na ci ci Pikine département de Pikine muy wane jafe-jafe yi année boobu sax je me rappelle wane woon nañu benn cas benn femme boo xam ne doom ji cinq ans la am négligence tax mu ñàkk bakkanam yàgg nañu sax à dire am na ay signes d'alerte yoon commencé woon am mais du ñu wax mu mel ni bu ñuy bu ñuy bu ñuy dañuy négliger wala yu mel noonu mais nee naa puisque un médecin bu nekkee dans un dans une zone def ci district am am du bind mukk lu bon lu baax rek lu positif rek lay bind pour wane ne ay def na ay performance mais état bi ak ministère bi am ay moyens yoo xam ne mën nañu yóbbal yeneen nit ñu dem def ay enquête wala xool wala sax au moins ñu def sondage ci population bi wala ñu mën a li lire li journalistes yi di bind mhm. bu ñu ko defoon du ñu réer du ñu def erreur ndax fu ne dem nañ fa ñu interpellé ñu am na ci benn année dañu dem Maka Koulibantang ñu ne ñu ay ay journalistes ngeen dañu takk ay brassard rouge comme ministre ba fa nekkoon à l'époque xam nañ ko parce que dafa la promettre ne centre bu bees bi dina fi def benn dana def mur de clôture bi indi ndox bi pour que euh, population man ko jariñoo pendant six mois mu leen di dawloo mais bañ koo woowee dafa ne wax ngeen dëkk kooku au moins il est intelligent pour sax wax ak nit ñi daal ne voilà yéen xam naa li ngeen def mais bu fekkee dañuy feewu ci renseignement wala euh, euh, notation yi nga xam ne liste ministre kii seen médecin nekk foofu ñoo koy def je pense que duñu am réalité donc problème bi problème de communication la Ousmane puisque à chaque fois parce que hmm? ki boo defee li ñu lay doyee dañ lay gën a doyloo mais nag boo ko deful ci la coow li juddu ci journal si loolu tax ñuy alerte souvent mais seen message sax dañ koy jël souvent comme ay offense yoo xam am na ci am na ci benn année ministre bi fi nekkoon di Eva Marie Coll waxoon nañu ne bi ñuy wax problème urgence mhm. dafa ne procès d'intention la daf ko weddi woon wala tey ji une preuve bu wane ne lii tey ji lu taxaw la yàgg na am comme ni ko Cheikh Alassane waxee mm. yàgg na am parce que peut-être bii dafa nekk bu gën a fës mm. mais nit yàgg na ñàkk ñàkk bakkanam ci ay négligence ci hôpitaux yi mm. mais loolu yëpp problème de communication la parce que Ousmane su fekkee communication amul rek day indi ay flou te nit ki ku ci nekk mën nga interpréter nu la neexee tey jii su fekkoon li nga xam ne ñoom la ñu def ci hôpitaux yi ci structure de santé ñu nekk ay chargé de communication mhm. yoo xam ne def nañu seen liggéey defe naa problème yi du am mhm. wax nañu léegi problème radiothérapie bi bu fekkoon tey jii li waroon def ci communication def nañ ko tey jii duñu ñu si fii mhm. problème u Aïcha Diallo bi su fekkoon tey jii wax nañ ko ci wàllu communication xaj na même bu fekkee situation bi am na mais nii mu amee ampleur du am waaye tey jii man damaa am gàcce ngaalaami journaliste yi parce que ku ci nekk jéem nga xam lan moom mooy jafe-jafe bi mhm. yaa ngi yee nit ñi parce que am na ñoo xam ne mhm. xaj na ñu nekkoon di nelaw mhm. waaye tey jii defe naa ne képp ku doon nelaw yeewu nga rawatina na ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk euh, système bi mais dama ne duñu sànni ñëpp euh, médecin yi nga xam ne comme ni ko Souleymane waxee euh, ay jàmbaar lañu wax dëgg yàlla moo ñu leen ko tuwaaye xam nañ ne ay jàmbaar lañu lépp lu ñu def lépp lu ñu mën ñu ngi koy def ni ma ko waxee gis naa ñuy dajale xaalis sax di dimbali ab malade wala dajale xaalis wuti essence dugal ko ci euh, ambulance yi pour mu war a dem mm. donc ñooñu dañ leen delloo njukkal wax ne du ñooñu mais li am moo leen gën a kawe moo leen gën a fort mm. ñàkkul nag ñi ngi ko waxee li ñoo xam ni dañuy sol blouse bu weex rek gën a rafet la sax blouse bu médecin bi mm. mais normalement hôpital dafa war a am benn genre nomenclature médecin bi mooy sol blouse bu weex bi sage femme bi sol blouse bu ki sol blouse bu la nangam nangam pour ñu xam kan mooy médecin ku dul waaye tey jii ku ñëw daal di jiiñ lépp médecin bi man dama ñëw gis docteur bi ndax mhm. tey jii problème de communication ba tey mhm. normalement parce que communication du ci wax mais gestes yi ak même comme ni ma waxee mhm. su fekkee tey nee nañu Sénégal ni képp ku sol blouse bu weex yaay médecin bon ku sol blouse bu weex dañu a na da nga gis nga xam ne dafay taxaw tey jii di bale ba mu yàgg rek suba nga gis ko mu nekk ci personnel de soins bi loolu comme ni ñu ko waxee c'est des recrutements politiques c'est des recrutements par copinage loolu dañ ko war a dindi ci Sénégal bu fekkee bëgg nañu système santé dox mais encore une fois Ousmane tant que communiqué wuñu y a toujours des problèmes au niveau du système de santé au niveau du système de santé euh, Pape Daouda euh, ñu toll ci li nga doon wax sànq sociologie de la santé nga xam ne c'est un domaine euh, prioritaire mais également sensible nga xam ne kon askan wi toujours am na nu ñuy xoolee hôpital léegi te mu waroon nekk ay partenaires yoo xam ne liggéey mais dañu dem ba am adversité boo xam dafa dox ba booy dem sax dafa mel ni dafa am nooy demee boo àggee buñ la waxee lu ndaw mu am na ko gisee te fekk comme li Souleymane Zomané wax balaa nga ne naam ne fa am na lu tax kooku itam mënu laa toppatoo ci côté boobu nga xam ne diggante vocation ak def liggéey par nécessité est nekkul itam trait d'union boo xamante ne fësal nañ ko fësal gu tax tey nit ñi pour ñu def seen liggéey ni mu war a aussi problème aujourd'hui de manière sociologique beaucoup de gens dafa am lu ñuy dañ naan dinaa def lii pour mën a subvenir à mes besoins tey damay dem recrutement fonction publique dem nekk un médecin wala nekk un un policier parce que euh, xat-xatu adduna dunduwaayu adduna wala am ñàkkamti am koom-koom moo leen jaral ñu dugg ci loolu. pour essayer de définir les choses ainsi. Euh, nga ma aussi ma def benn digression hein. pour dire que le milieu de la santé c'est un filière extraordinaire qui est formidable a de grands médecins. surtout les professeurs qui forment les médecins. Aujourd'hui, vous prenez le cas de l'éminent, le professeur Ahmed Tidjan Sissé, au niveau de l'EHS. Avec sa volonté, il a permis à la polyclinique de bénéficier d'une nouvelle maternité à hauteur de 2 milliards financés par la GICA. Et on nous avait dit que les travaux allaient durer 10 mois. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans, 6 ans. On ne sait pas encore l'état de statu quo. C'est ce de voyants hommes des hommes intègres qui sont effectivement dans les structures de santé ñoo xam ne ni mm. et aussi pour le dire il a fait plus de six ans sept ans j'ai collaboré avec lui il n'a jamais touché de motivation jamais touché de motivation jamais le professeur Cissé n'a touché de motivation trimestrielle relative effectivement au fonctionnement yi nga xam ne ci biir hôpital bi la. te na rien à biir santé bi ci biir santé bi. am la ñeneen ñoo xamante ni itam jar na ñu alerte. waaw parce que encore une fois de plus comme li doyen léegi. dañ ne la clé d'une administration la clé d'un régime elle n'est ni dans les chambres elle n'est ni dans les institutions mais elle est dans la communication d'abord lan mooy communication loolu aussi buñ ci buñ xam ba li doyen wax léegi wax waxaat amul solo parce que li mu wax mooy dëgg nekku ne soo duggee ci étude de santé au niveau de la politique de l'accueil au niveau de la politique kii mooy def lii kii mooy def lii ku nekk def sa rôle ak wax ci mu ko defee mën na nag mu apporter effectivement que bu ñu toogee ci plateau yu mel wax aussi la nga xam ne maîtriser nañ ko tey jii tout à l'heure j'ai entendu doyen Mané je m'en dire effectivement que le ministre a fauté que l'État a fauté c'est qui l'État l'État c'est nous autre chose par rapport aux dotations l'État donne effectivement une dotation dëgg la les mairies les collectivités donnent des dotations moi j'ai eu effectivement à administrer dans une structure de santé de la place je parle de quoi je parle je sais de quoi naa ko wax fii en 2000 en 2010 ci benn point de presse ma si l' état du Sénégal prenait le budget des états arabes le budget des États-Unis def dans la santé toujours les problèmes subsisteront et demeureront pourquoi le pourquoi je vais venir vous savez le problème qui se pose quoi tant que effectivement nit ñi nga xam ne ñoo composé effectivement la santé xamuñu la mission régalienne bi nga xam ne moo fi indi tout le temps il y aura des problèmes aujourd'hui Jouma ne ne va pas me les médecins à un moment donné le président l'ancien régime Abdoulaye Wade les les ce que touchaient les médecins xaw na yokk mais un moment donné maintenant prenez aujourd'hui le cas des hôpitaux tey jii ñoom bokkoon nañ ci xeex bi pour ñu def yenn centre centre de santé de référence yi en hôpital de niveau un on avait eu des oppositions man ak ñoom les syndicats pour le dire n'ajoutez pas des malades à d'autres malades à quoi cela ñii ñu ngi def seen i seen i seen i muy Matlabul Fawzeyni Dominique entre autres IHS ne leen ñii ñu ngi def seen i seen i liggéey parce que il n'y a pas de mission il n'y a pas de projet beaucoup plus pertinent que l'initiative de Bamako qui permettait effectivement l'accessibilité des soins pour les populations ah, mais aujourd'hui ils ont voulu en faire un hôpital pourquoi ah. un hôpital est beaucoup plus gagnant pour le personnel soignant que pour, les populations je m'explique tey da ngay dem dans une structure de santé ci ay jamono mm-hmm. ba fu ngay defee césarienne quarante cinq mille jamono ji c' est gratos mhm. fi nga koy defee quarante cinq mille da ngay dem le même le même professeur le même médecin bi lay hôpital bi lay defal foofu nga fay fay quarante cinq mille nga dem dans un hôpital bu mel ni CTO huit cent mille francs et maintenant ils n'ont qu'à nous expliquer comment se fait cette répartition tey jii vous prenez l'hôpital effectivement Aristide Le Dantec gagne combien neuf à dix mille de francs par jour il faut dire aux non non vous savez le syndicaliste effectivement son rôle c'est de défendre effectivement li nga xam ne ni mooy li nga xam ne ni li mooy mais bu ñuy waxtaan mhm. il faudrait que nous devons parler au nom les populations que certaines soient éclairées par rapport à certaines lanternes mhm. tey jii prenez effectivement ce qui se passe ce qui la matière ñi nga xam ne ñoo ñoo fa nekk ñu bëri am nañu ay fonctionnaires lañu mhm. quand on est fonctionnaire on est assuré on quand on est fonctionnaire au-delà ils ont ce qu'on appelle les heures supplémentaires ils leur perçoivent à temps loolu personne ne va démentir et autre chose les hôpitaux bénéficient de motivation mensuelle différemment des autres structures de santé qui nga xam ne sont des des centres de santé des postes de santé ñoom ont ça de manière trimestrielle il ne va pas me démentir et ça c'est la réalité ils perçoivent les choses à temps non vous savez si une personne que il faudrait que ki nga xam ne moo fute après aussi du ñu rek ñu du ñu rek condamné nit sur la base effectivement d'un écrit il faut que li xam ne nous sommes dans un état qu'il y ait des procédures mais néanmoins il faudrait que ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk dans les structures de santé quand dans l'ancien régime dafay ñëw ci loolu encore une fois de plus li liñ fi nekkee mooy fexe accessibilité des soins aux populations mooy population bi ku jug. dem nga faju nga am 100 francs nga ñàkk am 100 mais qu'est-ce qui s'est passé ñoom ils ont défendu il faudrait ab modicus non il faudrait que ñu def yenn kii en hôpital de niveau truc de niveau un qu'est-ce que cela a servi les hôpitaux sont malades on ajoute d'autres malades et jusqu'à présent qu'est-ce qui se passe vous revenez aujourd'hui pour dire que mm-hmm. dem dañ lay admettre effectivement au niveau de la de de, de de certaines structures tu vas faire des tests en, en, en au niveau des entre autres. et nous savons tous que les les les laboratoires gagnent effectivement à cent cinquante pour cent de plus par rapport à certains produits nous en savons nous ne parlons pas pour parler mais quand on est là on dire les choses telles que ça doit se faire et la réalité en quelque sorte. Mm. maintenant si Ibrahima Diop mën a l'État oui. oui effectivement qu'il y a effectivement une faute de l'État mais aussi les responsabilités elles sont partagées hmm. aujourd'hui il faudrait que ñi nga xam ne ñoo man ngànk bi muy syndicaliste yi muy ñi nga xam ne ñoo liggéey ci santé bi par rapport au recrutement hmm. oui doyen vous avez raison depuis l'acte 3 de la décentralisation mm -hmm. yenn possibilité lañ ko jox yenn yenn maire yeeg collectivité locale yenn collectivité locale yi ñu hmm. ko doyen wax dëgg la da ngay ñëw jël ñoo xam ne au niveau aussi de la wax dëgg la ñi ñuy jël da ngay xam dañ dafay dugg ci hôpital bi dafa nekk pour nekk pour raxas foofeere un moment donné mu ñëw def formation ñu jël ko mu nekk mu dem nekk di def ay soins def assistant infirmier entre autres aussi entre autres choses aussi il faudrait que yéen aussi vous les syndicalistes li nga xam ne ni mooy rémission bi nga xam ne ni moom la population di xar ci les personnels soignants ngeen xam ni y a tellement de failles et de manquements mm-hmm. que aussi ñoom nga xam ne nii les colobanes puissent arrêter les les gens savent que ça arrête mais tey jii d'échographie dans dans la structure tu paies francs mais le médecin bi ñëw la defal la ne demal dans une autre structure bien dans une clinique tu vas payer là-bas 15 000 à 20 000 francs qu'est-ce que cela veut dire ça c'est pas l'État ça la incombe effectivement à qui il faudrait qu'on arrête effectivement de créer tellement de tohu parce que nous sommes dans un pays qu'on appelle le Sénégal elles sont partagées et puis qu'il arrête de nous dire il faudrait nous payer oui nit ko liggéey quand il y a des manquements mhm. après effectivement sur une enquête boo xam ne leer na nañ que les responsables puissent être situés mais aussi qu'on arrête encore une fois de plus d'essayer effectivement de nous amadouer d'essayer effectivement de de de de nous de nous mhm. sur certaines choses qui sont illogiques parce que aussi s'il y un problème aujourd'hui au niveau de la santé c'est parce qu'il y a effectivement les mains de ces syndicalistes d'accord dinañ euh, nga xam ne kon bu ñu wax waxu responsabilité itam jëmale ko ci état maanaam koo jox nga xam ne ci yow la yaakaar nga jox ko teg ko ci loxoom ni ko defe ko nii bu ko defal noonu aussi am nga possibilité sanctionné ñu gis ne am na aussi koo xam def na liggéeyam teg ko ni mu waree waroon nga ko def sanction positive ba mu nekk exemple ki yàq aussi nga def ko sanction négative ba mu servir d' exemple ñaari tànk yooyu est ce que hôpital ak yeneen établissement yi ñu ngi koy doxee ba santé bi mën a tegwaat ci yoon comme ni ko Pape waxee. waaw xam nga déjà euh, erreur yi am fii en Afrique au Sénégal fii rek la amee. waaye Europe ak Amérique médecin xam nga déjà dafa am loo xam ni man sax ndax dama koy laaj jour laa koy laaj ndax amati na ay agent assermenté xam nga déjà dafa nit ñi dañ doon prêter serment pour dugg si métier déjà muy benn ndax agent assermenté yooyu nga xam ni bu ëllëgee ci biir daanu xam ni kat dañu waatoon am na faute yoo xam ni xam na lu mu leen mën jural ndax loolu dafa am importance ñenn ñi dem daawoon juré si bible wala ñenn ñi si alxuraan yooyu dafa mos a am nga xam ne nag sa liggéey daa xam ne man kat tey charge bii nekk sama conscience fu ma toog rek gisuma mbiru xaalis damay xool li nga xam ni tey jii lii laa war a def moo may jëmale kanam te yoo c'est un syndicaliste c'est un li mu wax fii ba tey affaire syndicalisme rek la parce que laa ne là où il n'y a la rumeur sama canal journaliste boo xam na ko effectivement mais euh, boo dee seet man démb rek maa ngi ci benn hôpital toog fa seet woon ko accouché mais muy nettali benn femme boo xam ni dégg nga maam dafa fa nekk di yooxu di yooxu nee na femme ya ña ko waroon assister di wax waxu natt ay infirmière yow de xanaa daama teggal dégg naa kooku di yooxu ba kii ñu ni kii daal dañuy ne xaw ban heure rek ñu yóbbu ko bolok neen nu ko jëlee yóbbu ko bolok dañ ko yóbbu mu accouché naturellement te dañ ko doon wàcce césarienne démb démb waaw kon donc nga xam ni conscience bi ma fi waxoon dafa am ñoo xam ni mairie yi ñoo leen fa recruter gaa ñi ñetti fan ñeent lu ñuy wax mooy grève motivation jotuñu xawma motivation sax man dama xamatul lan la bala ngay motivation dangay ngay liggéey ba pare état bi xaalis bi hôpitaux yi di encaissé ndax am na ñoo xam ñu ngi fay xaalis boobu anamu fu muy dugg parce que gis nga il faut pas attendre tout de l'état état boo dee nekk moom mu doxal lépp am na si ay localités yoo xam ne tey ñoo ubbi seen i ay centre de santé. Hmm. ñu nekk ay Europe dajale ubbil seen hôpital pour ñu yóbbul leen rek ku leen di faj rek problème la. te déjà y a des yi nga xam ne dafay génn ay infirmiers d'état ñi ngi fi ñoo xam ne dañuy chômer dañu jàng ngay jël ñoo xam ne dégg nga maam ay euh, euh, clientèle politique lañu dugal leen. comme ni ñu ko waxee léegi am na ñoo xam ne dañuy bale man benn anecdote suma xarit génn na àdduna c'est un ancien international de football dafa amoon sciatique hospitalisé teew nee na métti bi daf ko jàpp ba guddi mu gis benn waaju sol blouse mu ni ko kaay ma waa ji ni ko non man du ma piqûre man garçon de salle la ko piqûre ma 1000 francs waa ji piqûre ko moom moo ma ko nga xam ne kon donc lépp lu ñu la wax si hôpitaux yi mi ngi si lu ñu wax nag ni ñëpp baaxul ndax malaat bu yegsee accueil ba rek. Mhm. foofu lu nekk nag fa lay jóge si moom. Mhm. gis na ni koy accueillir lu mu feebar feebar lu mu souffrir souffrir mais da ngay ñëw di waxante ñoom ñu mel na ñoo xam ni danga leen rayal seen taaw tu ne comprends pas. Mhm. Euh, euh, euh, personnel bi ñi si incorrect dafa bari par contre dem bi ma toogee hôpital toujours dégg naa ñuy wax benn femme bu nekk hôpital Dantec accueil ba ñenn famille yi di wax ñun de kooku benn yoon boobu lañ ko ñeneen accueil bi dafay ñëw di leen wax toog leen muñ leen ñenn ñi dañ nekk en urgence ak loolu tax ñu ni déjà rek ñoom am na lu mu tey si lu leen mhm. loolu moo bareetul si hôpitaux yi mhm. boo ñëwee affaire xaalis dëgg la ñu lay wax mhm. da ngay gis ku jógee malade Kër Massar yëpp ko si taxi dem Dominique ñu ni ko du fii mu dem Baudouin ñu ni ko du fii mu dem hôpital principal ñu ni du fii moom ba buñ koy jël sax fekk na kooku dee na waaw loolu yëpp dafa am du lu wax na ni ñëpp a bon. Mm-hmm. man par exemple IPRES bi ma nekk y' a un neurologue professeur Ba. Mm-hmm. mais ñëpp koy gërëm. Mm-hmm. Euh, professeur la boo xam ne ku baax si malade yi. ku mu ngi def liggéeyam. kon est-ce que lii du nekk malentendu wala bésu pression boo xamante ne ëpp na wala humeur nga fekk ko ci nit boo xamante ne ay cas isolé da ci am yoo am dañ ko généraliser. Ah, si mais xam nga déjà ñoom ñu ngi wax toujours affaire salaire rek motivation ñoom ni ñuy demee sax rek. nii chaque jour ñuy liggéey rek seen xol dafa tàng kooku bu la si dara jaaxal parce que ñu ngi wax waxu état bi eh, suñ jotuñu xaw ma lan juróom benn weer a ngi ni nàngamal la ngi nàngam gis nga am na su yoo xam ni fekkee rek tey jii da jógoon comme ni ko enseignant yu jëkk daawoon def ak infirmier yu mosul am sa bu année yu jëkk ya mm-hmm. tangu après indépendance ndax mos nga dégg li hôpital wala daawoon ko wax. mais non amul sax. ndax booba journaux yaa ngi fi. xëy na barewul woon ni ak rajo yi waaye am na ñoo xam ne ñoo fi nekkoon tey di bind. mais daaw loo ko dégg bu dul loolu sax yow yenn saa yi loo xam ne vivre ko mais sa dëkkaale wala ku la jege wala foo toog di waxtaan danga koy wax. léegi nag yéen dañ leen di gërëm journaliste yi dañ leen di gërëm. yéen kenn waru leen sànni xeer. yéen gis nga bu leen état bi doon déglu ak yeneen partenaires yi daanu xam fu ñuy seen tànk ndax nag. li nit ñi mënul wax yéen a koy eggale plateau bii tey ngeen nu jox ñu am si opportunité pour mën a wax population bi mais kooku yéen rekk ko mën def keneen mënu ko def kon donc numéro ver bi may wax bu amoon tey si la lu mën a xam tant état bi taxawul numéro vert lu ko am foo toll rek lu la naqadi si bésu hôpital rek wax ka mais kon nga xam ni mais mi dal toj am na ñu ne li fi rouge yëpp numéro vert ko jur ka xamoo vert kan léeg-léeg nga woote mu yóbbu la fa kenn xamul ba at mi jeex <laughs> loolu aussi problème la <laughs> Souleymane Jomane parce que itam gis nañ ne santé moom nekkul loo xamante ne comme ni nga évoqué fii ci ay koppar ak xaalis mënta nekk loo xam dafay gratuit mais léeg-léeg dafa am condition d'accueil yoo xamante ne mooy tax aussi nit ki peut-être wara laaj ndax est-ce que amul tey ñu taxawal nag parce que situation nouvelle conscience nouvelle ñu travail ñu taxawal structure yu bees yoo xam ne cas mel nii dinañ ko bugg di jël maanaam ku ñëw urgence amoo loo fay wala nga ñëw urgence mun nagoo fay parce que hôpital yaa ngi fees ak carte d'identité nga xam ne seen borom dafa amatul lu ñu fay yooyu yëpp est jotul tey comme li nga wax ni koppar yi état di dugal ñu xool rubrique boo xamante dina jël loolu en charge baax na aussi ñu dugal xaalis mais gestion xaalis bi aussi euh, Pape Daouda Diène mu ngi ciy interroger wu parce que hôpitaux yi aussi bu fekkee Pape Daouda Pape Daouda Diène wax na fii mais def naa du ma ko tontu parce que du l'objet ren euh, euh, échange bi man li ma li nga xam ne wax dem koy wax moo xam ne loo xam ne dañ koy vivre mooy Pape Daouda Diène mu ngi ci structure yi Sénégal amul politique de santé hospitalière dama la bëgg wax ni amul loo xam ne teg nañ ko ñu ne bu at bi dellu suwaate dañ koy xayma amul ci hôpital hôpital bu ne da ngay def da ngay organiser en fonction sa réalité en fonction de vision en fonction projet d'établissement yi ñuy validé donc loolu mooy permettre hôpital bi di fonctionner mais politique de santé nationale boo xam ne dañ koy valider au plan national ñu ne dans toutes les structures lii lañuy def. ñu amul première difficulté su amoon à l'évaluation dañuy xam lan moo manqué lan moo des lan la ñu war améliorer. radiothérapie bi am daan bi problème bi amoon daan radiothérapie bu amoon politique de santé ñuy def évaluation du ñu toog ba loolu paan ñu soog ko xam. te ñu waxoon ministre ci évaluation yi la ñuy xam. ne xam ne ne rajo bi 10 ans la war a def mu passé na 10 ans loolu xayma boobu amut dama bëgg moom mu xam man ci man ci santé laa liggéey sama dadaa loolu moo ci la laay xëy guddi ak bëccëg inventé wu ma fi dara les faits laay wax. politique de santé hospitalière amul boo xam ne ni validé nañ ko ñu war koy xayma amul fii. pourtant ñu wax de la santé de la prévention et de l'action ma ne laaj ko Mbagnick bu ñu demee évaluation à la RAC on parle c'est on fait l'évaluation de la politique de la santé publique donc les activités de district la ñuy wax ak xaalis bi ñuy joxee koppar yi ñu duggee fan la dugg ci loolu lañ koy wax hôpital. bu ñu demee ba ba ci sant ci euh, di sër ci la ñuy sox wax problème hôpital te hôpital lan lañ ci wax mm-hmm. problème césarien la ñuy wax ci hôpitaux yi mais les autres activités de l'hôpital ne sont répertoriées nulle part ne sont évaluées nulle part hôpital c'est un tout depuis ci jardinier bi ci ci bunt ba ba ci morgue ba ndax am na ñoo xam ne dañuy dugg hôpital faju génn mu am ñoo xam ne ci morgue ba lañ leen di jaarale mm-hmm. politique boobu moo amul que hôpital bu ne da def li nga xam ne jàpp nga ne lii mooy lu baax ci yow nga def politique de santé boobu moo amul santé hospitalière amul moo tax mënuñu xayma moo tax dañuy toog situation de crise la ñuy gérer dañuy xaar ba crise ñëw état d'âme yi mu nekk des questions d'état d'âme mm-hmm. waaw nit ñi di wax ni lii moo xew hôpital lii hôpital la parce que xamuñu nii dara neewu fii dara def fi nekkul mm-hmm. bu fekkee ne tey mettre nañu en place une politique hospitalière ñuy évaluer les activités de l'hôpital mm-hmm. le fonctionnement de l'hôpital ñu koy évaluer dama la ne urgence bi mën nañ ko régler jël en charge sa bopp après nga door a toog à Paris quand tu vas en France moi j'ai j'ai été formé à l'assistance publique de Paris mm-hmm. à l'hôpital Henri Mondor mm-hmm. je connais bien l'assistance publique je mm-hmm. SAMU SAMU mooy réguler euh, urgence yi ñu ne boo amee malade bu joore jógee Thiès da ngay woo SAMU SAMU en tenté am situation hôpitaux yëpp Sénégal wax la ne am na deux deux lits disponibles au CTO malade bi yóbbu leen ko CTO mu wax leen am na trois lits disponibles à Dantec ngeen yóbbu ko Dantec donc nit ñi duñ perdre sax hmm. mais il faut que ambulance mu nekk des ambulances médicalisées loolu mooy yooyu état la Pape li mu may wax ne état ñun la loolu d'accord ma ci discours boobu c'est trop facile hmm. l'état on a confié le pays a qui a qui a délégué ses responsabilités à d'autres hmm. donc ñooñu ñooy gérer man gérer wu ma li may wax ni bu ma bu ma doon gérer noonu laa ko doon doxale donc centralisation il faut que loolu am mu sànni di réguler les urgences ñëpp mënuñoo dugg ci urgence en plus il faut qu'on forme des urgentistes on n'en a pas urgentiste amul loolu tamit dafay laaj ñu former nit ñi. défaillance am na waaw donc def dafa dafa bëri. li am nii eh, Pikine. Mhm. ñu ne amoon na Sétéo. Mhm. si bu na góorgóorlu dina amaat. Mhm. parce que dañuy yaakaar ni négligence du négligence. manque d'organisation la. qui est man qui est de la responsabilité de l'État c'est à lui d'organiser. de po de définir une politique nationale hospitalière. prévenir ku euh, euh, gë. si on a la politique. de nationale on va tout ça dérégler wu. Mm-hmm. on va régler la question des urgences va être réglée. Mm-hmm. la question de la communication dont il parle va être réglée. Mm-hmm. aujourd'hui on n'a pas les protocoles les mêmes protocoles d'un hôpital à un autre. donc soin benn pathologie même pathologie yow boo ko ni nga koy fajee CTO boo demee Dantec du noonu la koy fajee dina am différence. tey nga am benn même pathologie nga jël mais vingt médecins. ñu bind la vingt antibiotiques yu bokkul kenn ku ne parce que amul protocole boo xam ne war nañ ko mën a valider ñëpp d' accord ci ni nii leen koy defee loolu commission comité d' éthique moo koy def te loolu yëpp nekk nañ fi organisation daal la ak logiciel en soins inf loolu yëpp dañ ko war a valider ñëpp d' accord ci ni lii mbir mi nii lay demee dafa bëri problème yoo xam ne il faut ñu toog ak état ñu xayma yëf yi hôpital mënut a continuer di fonctionner nii il faut que ñu définir une politique de santé et ça je ne pense pas la, la communication seulement ne peut pas régler il faut définir une politique si on définit la politique on on a l'horizon xam nañ fan la ñuy jëm. kon réforme bi ngeen wax dàgg. mais réforme ans ba léegi. Hmm. réforme bi musu réforme France moo njëkk def réforme texte français la ñu la loi on s'est inspiré du texte français ak ah, la la on hmm. s'est ñoo ñu def plus de quarante réformes ci diggante gi mm. ñun ñu nekk à l'état dix-neuf ans ñu ngi def sur place mm. bougé wuñu mm. demuñu fenn le statut des EPS ba léegi mënuñu ko mettre en application te nga dem hôpital nga fekk fa euh, juróom statut yi différent nit ñu bokkuñu ni niveau de traitement loolu on a pris des agents yoo xam ne hôpital moo doon recruter en quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-huit lañ leen recruter ils sont ils sont régis par euh, euh, la convention du de commerce comme convention la ko dix-neuf ans avancé wuñu agent yaa ngi foofu ñu nga ci hôpitaux Sénégal yëpp convention de commerce moo leen régime te duñu avancé mm-hmm. duñu avancé ñu ngi sur def sur place 19 ans ñu am ñoo xam ne loolu la ñuy wax di recruter prestataire prestataire mooy lan dafa am ci code du travail prestation da ngay ñëw sa prestation ñu fay la nga ne dafay toog at loolu moo type de contrat qui qui qui s'apparente à l'esclavage mm-hmm. c'est ça, l'État ferme les yeux là-dessus. Mm. Et nous interpellons, nous avions toujours interpellé l'État sur ces, situations. Mm. Et les gens font, l'aveugle mm. là les difficultés de l'hôpital. Si on ne les règle pas, mmh. les problèmes là dont on parle, du ñëwaat parce que parce ñu am jumtukaay. du ñu am les orientations. difficulté day am. Mm-hmm. à tous les niveaux day mm-hmm. pour ñu régler ko nag il faut que ñu mettre une politique. loo xam ne dinañ ko mën a évaluer ñu situer responsable kenn ku ne à son niveau de kii à son niveau de responsabilité mu mën a rendre compte waaw boo xam balaa dugg hôpital mhm. xam kan la njëkk a dajal fan la njëkk a dem ainsi mhm. de suite balaa muy egg ci médecin bi balaa muy egg foo xam ne foofu lañ ko war a hospitaliser foofu lañ ko war a kii mhm. loolu buñ ko amee yëf yi du ñu soxla lii yëpp wax bi day day jeex parce que suti nañ responsabilité mu wax euh, Pape pour dire que la question la dotation li ma koy wax néew ma dotation amul ma ne état day joxe dotation mais dotation c'est pour le tiers payant ça aussi je veux être clair là-dessus je ne dis pas que l'État ne donne pas l'État donne la dotation sous forme de tiers payant parce que on a diminué les actes l'État nous a demandé de les actes dans les hôpitaux loolu moo subvention yooyu ñëw hôpital Ziguinchor 250 millions lañ leen di jox at 250 millions fonctionner hôpital régional Ziguinchor dama jël boo demee Saint-Louis 300 millions la. Mhm. ainsi de suite loolu la état di jox comme subvention maintenant je suis d' accord lui quand t'as dit il faut pas faire des floraisons des des de de niveau. De niveau je suis d' accord mhm. balaa ñuy def loolu nañu régler d' abord lii là tout à fait d' lui. mu mhm. xalaat population li fi nekk nañ ko régler d' abord ba mu tegu ci yoon. ñu dem parce que daanaka jàmm maa ngi nii ñu ngi koy waaj a tijji. problème hôpitaux yaa ngi nii. est-ce que dalal jàmm war nañ ko tijji condition yooyu mhm. lan lañ ci war a def dalal jàmm bañ jànkonteel même problème bi loolu duñ ko xayma dañuy toog rek un jour rek ñu ne tijji nañ ko ñuñ mhm. fay dem politiciens seen seen militant ñoo fay dem mhm. yow doo ci mun dara man du ma ci mun dara ñooñu nga fay fekk après boo ne boo koy xee nga ne sa mbokk du doo boo nga dugal ci condition yi ñu teg la fële ñoom ñu dugal fa seen i mbokk loolu mooy situation bi dakk Sénégal loolu la ñu war a ñëpp di ne loolu jaadu bu ñu waxee dara ñi d'accord nañ ko teg ci yoon parce que ay bakkan lañ fay faj. lu muy wax dëgg la war nañu jël n'importe qui dugal ko fa. Mm-hmm. mais malheureusement. Mm-hmm. c' est pas le cas les gens ils ont d' autres ambitions. donc loolu suñu préoccupation nekkul seen préoccupation. mais en tout état de cause. Mm-hmm. pour conclure sur la question en tout état de cause. li ma leen mën a wax hôpital pour mu tegu ci yoon. dafa leer il faut que ñu définir politique. hospitalière. ñu xam ñëpp d' accord ci. il faut que en place des protocoles. il faut ñu mettre en place des manuels de procédure manuels de procédure yi amul tey et loolu yëpp il faut que ñu teg ko mbañig li ma koy wax xam moom xam na li may li ma koy wax manuel de procédure ak protocole moom xam na ni yooyu yëpp mmh. loolu la parce que bala il faut nga évaluer nit ci lan loo ko évaluer xam na yokk wala amul amul amul ci hôpital dinañ ci delluwaat Souleymane Diomane Mbagnick Diouf mu mel ni kon yëf yi am na malentendu boo xamante ne day am parce que comme ni ñu ko waxee ñoom par exemple nit mën na nga nekk jardinier loo tax ñu war a recyclage nga dem peut-être defaat ay études jàng ba mën a appuyer wala nga aider médecin wala nga aider infirmier ak yooyu loolu recyclage la mais loolu lii xew nii tax na ba nit ñi gisatuñ koo xamante ne dafa am évolution mais dañu gis koo xam ne facilité moo ko dugal malentaan malentendu boobu nag dugg na tey ci diggante ñiy faju ak ñii faj bañ àgg foo xamante ne tey est-ce que mën nañ day euh, comme ni ko Souleymane Zomane waxee bu ñu redesee ba pare ñuy def évaluation di def sanction positive ak négative ba mën a rectifier le tir parce que problème am na parce que kaaw Pikine bi euh, dégg nga ko nee nañu dafa yàgg di fa xew ay cas yu fréquent est-ce que nekkul ne hôpital bi fa mu taxaw nga xam ne niveau am kawe na te mu ngi ci banlieue bi lañ doon xaar ci assistanat ak social ak yu mel noonu fan la rupture bi amee vraiment ba déggoo mënul am en fait rupture yi puisque dégg naa ce matin sax ci sama rajo que ne jigéen ñi dëkk boori ginnaaw raay ak caaro yi dañu war def marche pour wane ne cherté hôpital bi. pourtant hôpital yi boo seetloo ba ñu fa demee benn visite bi ñu wonee tarif yi c' était vraiment un peu concurrentiel avec yeneen hôpitaux yi. mais le problème mooy procédure bi ñuy def. ndax c' est vrai dañuy ñëw ñu laaj la caution nangam nangam nangam te gis nga koo xam ne surtout zone bi mu nekk parce que dama ne man la première erreur mooy hôpital bi foofu ñu ko implanté. ak niveau bi mu am. parce que nit ña fa nekk di voir parce que dañu naan bu ñu fa dañ pour désengorger un peu principal Dantec ak noonu pour que ñi dëkk ci gox puisque d' après enquête bi ñu defoon dañu ne lu mat plus de 50 pour cent des patients lu ñuy jóge ci banlieue bi donc ñu indi fi pour fixer les banlieues mm-hmm. les banlieusards mm-hmm. mais bu ñu ko fa defee te amuñu les moyens yoo xam ni dañu fa faju ay problème rek lay am mesure d' accompagnement amu ci mm-hmm. mais social mais je ne pense pas que mu fonctionne foofu la ñu ay situer responsabilité pas peut-être le médecin mais le personnel d'accueil wala ñi nga xam ne ñoom ñore comptabilité bi hmm. puisque cëpp ñu ne la bala ngaa def bala ñu laa laal nga joxe xaalis loolu je pense que rafetul dafa ñaaw est-ce que léegi nag est-ce que c'est le médecin je ne pense pas mais peut-être mooy ñi nga xam ne dañu nekk au niveau de la caisse ak yu noonu en complicité bien sûr avec le médecin hmm. mais hôpitaux yi Ousmane seen problème mooy dans toutes les structures de santé même au niveau du ministère li ma leen di faral tooñe vous ne vous n'agissez pas mais vous réagissez il faut nit ñi wax leen dara ba pare ngeen dopp topp seen ginnaaw di daw le problème du Sénégal c'est quoi quand on me parle d'urgence sax man damay xaw a tikke tuuti dama ne Sénégal urgence amu fi képp ku mas a am un cas guddi nga dem ci hôpital xaw ngaa jooy man en tout cas j'ai vécu ça dans plusieurs hôpitaux dem naa fa ànd ak nit ak li ma fay en relation yëpp mënu ma fexe ba ñu régler sama problème parce que da nga gis la d'ailleurs la plupart du temps hôpitaux yu bëri ce ne même pas de sénégalais mais c' est des étrangers laa fay gis guddi ñoo fay nekk di monter garde dégguñu sax wolof c' est des étudiants étrangers yu ñëw fii di monte la la la euh, garde bi euh, la la nuit. donc yooyu ay jafe-jafe la hôpital bu fekkee dañu bëgg am urgence ministre mas na ko wax une fois professeur Awa Marie Coll Seck vraiment urgence yi ça les à désirer urgence da ngay am infrastructure da am personnel da ngay am équipement mais c' est pas le am nañu hôpital boo xam ne bëgguma ko sutu ci bee ngay ba bangu bangu bangu def en ciment ci ngay toog j'avais amené une fois mon grand frère mi ngi daan wañaaru foofu mais dafa mel ni dañ ko négligé il a fallu que ma yuuxu bu baax a baax ba nar amate foofu yëpp ci lañ koy doog jël en charge donc il faut boo ñëwee duñ la sax parce que am pratiquement mm-hmm. Mm-hmm. service accueil yi nekkoon ci bunt bi di wax yooyu à partir de 18 heures ku nekk dem nga donc ña fay nekk mooy peut-être ñiy bale wala garçon de salle yooyu ñoo lay jéem a mm-hmm. yow bu fekkee da nga indi sa malade amuloo sax doole kattan goo yegg yanoo sa malaat boo moytu da nga koy diri puisque amul brancard yi amul dara donc loolu moom mooy problème mu hôpitalu hôpitaux yi Sénégal le système de santé bi dafa feebar il faut ñu wax ko aussi du caagan dañ leen compte du caagan dañu leen bañ du caagan dañ leen sànni xeer mais li ñu gis la wax imaginer li ñu wax yëpp fii ci Dakar Ousmane imaginer ci àll bi imaginer daa dans dans les de reculées là est-ce que ñun jafe ñuy rencontrer ñoom duñu jànkonte trois fois quatre fois cinq fois dix fois plus mhm. donc le problème mooy c'est li ma ko waxoon toujours il faut nit ñi di wax di waxante hôpitalu Pikine bi nekk ci camp Thiaroye mhm. c'est pas un hôpital boo xam ni dina mën a jël nit ñi nga xam ne lu lañu def parce koo ñëwee mhm. accouchement ñu ne la cinquante mille francs lañ lay laaj pour pour pour pour caution mais boo ko amul looy def da ngay dawaat génn dem même le un problème s'est posé au niveau du district de Pikine du, du, du département de Pikine mm -hmm. hôpital centre de santé roi bu Pikine bu Dominique mm -hmm. centre de santé Kër Massar centre de santé Mbao benn am ci bloc opératoire tey jii femme bu ci nar a accouché dañ la jagat-jagatee yóbbu la hôpital Roi Baudouin bu feesee yóbbu la bi nekk Tëngéej wala ñu yóbbu la bi nekk na Nabil Choucair mais voilà un problème à régler li li li li je wax dëgg la nan la ñuy ubbi dalal jàmm te réglé wuñu problème centre de santé Dominique réglé wu ñu problème centre de santé bi nekk Géejawaay amuñu même une salle d'hospitalisation def naa fa plusieurs euh, visites plusieurs reportages hospitalisation amul centre de santé bi nekk euh, Géejawaay puisque benn poste de santé lañ jëloon rek érigé Roi Baudouin en hôpital niveau niveau mhm. rek daal di koy def taf taf tafee mu nekk benn benn centre de santé boo xam ni kenn répond pas aux normes puisque mhm. centre de santé ñi ko ñi jàng xam nañ ko xam nañ dafa am ay normes yoo xam ne da ko war a def donc mhm. vraiment le problème mooy il faut que l'État mette des moyens bu fekkee dañu bëgg régler problème au Sénégal mais malheureusement fii au Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew bi seen doom duñ fi jànge seen jabar seen doom duñ fi fajoo moo tax ñu négliger li nga xam ne moom mooy problème mu Euh, santé ak éducation. Mhm. mais bu dee problème sécurité nag on recrute toujours des policiers des gendarmes. d'accord Mbagnick Diouf Pape Daouda Diène ñu gis ne tey boo ñëwee fi ñuy wax urgence nga xam ne Souleymane Diomane mu wax waxu urgentiste. mais balaa nga yegg ci urgentiste yooyu sax c'est tout un personnel yoo xam ne ca accueil ba fan lay yóbbu ak yooyu man ADK yoo xam ne yu bëri gis na ci hôpital kuñ indi urgence mu jàll ñu mujj annulé ko ne du urgence euh, dal di koy indi consultation. xanaa kii peu le plus que peu loolu ku koy def waroo ku ñëw rek nga ne ko boo fayul duñ la laal bi nit ki bugg a faat ñàkk bakkanam ci yëf yooyu côté boobu aussi nga xam ne doxalin bi daa mel ni dialogue bi daal lépp ci wàllu xaalis la ak koppar. xam nga damay faral ignorer la loi te àdduna dafa am lu ko yor muy administration benn di organisation ñaar. Mm-hmm. je parle en connaissance de cause te Jo Ibrahima ne va pas me démentir mm-hmm. que. hôpital bu ci nekk da nga am sa politique sa administration bopp et quand on parle d' administration c' est quoi une administration elle sert effectivement à instituer à organiser mais soo ñëwee tey jii ci hôpital nga dugg amuloo accueil wala accueil bi ngay doon xar amuloo ko effectivement il y dafay am ce qu'on appelle des dysfonctionnements donc effectivement encore une fois de plus li ma doon wax je vais revenir là-dessus le problème n'a pas un problème d'institution ou bien d'organisation ou bien d'administration on comme il est dit que l'environnement détermine euh, détermine la personne nit ku ne euh, yar bi nga jëlee say gox say waajur ci sa fi ngay ni ngay liggéeyee loolu danga ko war a loolu la nga war a mën a wone parce que aussi bu ñu xamee ni Sénégal Sénégal la que c'est une c'est une état c'est une république comme le prévoit effectivement l'article de la constitution dit que l'État et les collectivités locales ont l'obligation effectivement de veiller sur la sur la santé mentale physique entre autres des des biens des personnes c'est normal état bu defee loolu nag li nga xam ne mooy politique administration wu ñi nga xam ne mooy hôpitaux yi fi ne fa nekk même si l'état affecte tey ji nga jël Ibrahima Diomane nga jël ko mu war a nekk directeur hôpital mais même lu mu am am bagage bagage présomption bi tey ji il faut que mu def au moins euh, il faudrait sur effectivement une spécialisation par rapport à cela pour gestion mm-hmm. jël nga nekk directeur hôpital mm-hmm. mais néanmoins c'est il faudrait que l'État puisse refaire beaucoup de choses li may wax rek àdduna ce ne soit pas de manière spontanée qu'il faudrait essayer de définir non qu'il faudrait créer ce qu'on appelle des situations de réaction un État doit pas être réactionnaire un État doit veiller à ce que mm. planifier le planifier de mm. veiller sur un programme comme il est dit que cette idée là est mauvaise mm-hmm. et que tout projet qui ne cherche pas à se concrétiser ça passe à lieu maintenant qu'est-ce qu'il de faire aujourd'hui lan la ñu fii Sénégal tollu tey jii hôpital bu ci nekk moi je vais vous dire euh, Ibrahima Jo sànniwuma xeer sama mbokku syndicalistes yi ñun ñëpp dañ fi nekk pour jéem a seet naka la ñuy defaree pour lii bañ amati. Mm-hmm. mais qui sont les grands perdants mais Ibrahima seen yow la man la ñi nga xam ne seen loxo jot ñu seen gannaaw mais tey jii il faudrait dëgg la qu'il y ait beaucoup de redistribution mm-hmm. qui doit redistribuer l'État ok léegi ok mais aussi tey jii état tey ji boo seetee yenn hôpitaux yi hôpital buy liggéey di perte amul hôpital buy liggéey di perte ça n'existe pas au Sénégal Ibrahima Diop li may wax nii. dëgg la il faudrait aussi. dire une chose hmm. tey am na hôpital yoo xam dañuy gagné ay quinze vingt millions par jour ah si ça existe am na période yoo xam ne li ma lay wax dafa c'est ce sont des réalités qui sont là il des hôpitaux qui en gagnent. mais au-delà de gagner effectivement il y a des charges parce que quand on parle de gestion et de compta côté boobu aussi il faudrait gérer les révélateurs il fallait gérer effectivement certaines dépenses à telle enseigne qu'aujourd'hui il arrive effectivement aussi mais duñ duñ ci duñ ci hmm. une administration hospitalière qui perd ça n'existe pas hmm. certes les manquements ne manquent pas mais néanmoins il faudrait dire une chose hmm. il faudrait agent de santé ASA agent de santé yi xam nga ñaata la ñuy fayeeku ay vingt cinq mille ay trente mille ay vingt mille ay trente mille dañuy liggéey plus que sax certains fonctionnaires de yi nga xam ne dañ leen jël au nom de la fonction publique mm-hmm. te ñooñu amuñu heure supplémentaire ay vingt cinq mille ay trente mille la ñu am par mois dañuy liggéey y a tellement effectivement de docteurs des gens qui ont leur diplôme et qui sont en chômage ils font des prestations dans certains centres ñu leen di jël pour ñu liggéey def ay def la relève mm-hmm. di def ay vaca di def ay vacataires mm-hmm. tey ñooñu je leur je leur tire un chapeau tey jii ya aujourd'hui aussi il faudrait saluer ñi nga xam ne ni mooy ñi nekk dans par rapport à la à la, à la lutte sur le la mortalité néonatale et infanto-juvénile mm-hmm. où le Sénégal a progressé mu ñu réduit jusqu'à pour mille mm-hmm. où ça été à cent pour mille donc aujourd'hui il y a des, des des efforts considérables qui ont été faits qui ont été apportés mm-hmm. mais néanmoins dañ naan mbir mi dafa des te mhm. dañ ko war a gën a defar mais nag bu ñu dañ ko war a gën defar parce que manquement yi am ni et puis ce qui m'a fait le plus mal aujourd'hui en 2016 dans le troisième millénaire de tel acte pour pour am ñu jéem a taxaw naan ay ndogalu yàlla excusez-moi Diop du question yàlla gëm nañu yàlla mhm. yu mel nii warul am et puis aussi état dafa war a doter des moyens suffisants mhm. d'abord c'est quoi d'abord les moyens mais tey jii bu la état jëlee en charge ce qu'on appelle la masse salariale de certains agents mais c'est déjà quelque chose nañ leen du doy mais il faudrait que ñu gën a yokk autre chose aussi il y a le secteur privé certaines sociétés de la place tey jii am na benn société boo am ne wala ma mayee moo wax turam comme bu nañ ko bañ a nax nax du ma ko wax mhm. mais tey jii en 2009 benn société boobu doté na bu liggéey dans la dans la téléphonie doté na Sénégal beaucoup de structures ay éco-doubleurs mhm. avoisinant dans les 90 millions 100 millions jox ko structure de santé yu nekk de gauche à droite certains kii mhm. aujourd'hui au-delà aussi de ça. il faut loolu waroon na combler benn loolu war na mën a combler même aussi il faudrait aussi. Hmm? non non mais dëgg la aussi hmm? il faudrait dire. il faudrait dire waaw mais dañuy waxtaan rek gis nga àdduna. àdduna dañuy waxtaan. destination bi jar naa xoolaat saytu parce que xaalis boobu waroon jënd loolu. mais au-delà de ça. Hmm? on nous parle effectivement de de relever les plateaux techniques des hôpitaux. qui est une évidence aujourd'hui état bi dama la def. de ko sama doyen waxee léegi gox bu ne ay doomu aadama ñoo fa jut ñoo fa nekk. y' a pas de sénégalais plus nanti ou bien moins nanti ou bien y' un, un sénégalais ki nekk au niveau de la du fin fond du Sénégal ak ki nekk Dakar dañu war am dans les mêmes conditions. autre chose aussi ñi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk docteurs yi tey jii boo jëlee. 70 mm-hmm. pour cent ou bien pour cent des médecins ak cliniques fu nekk à Dakar. Mm-hmm. c' parce que il y a c' est là où il effectivement beaucoup plus de gagne-pain de revenu mais il faudrait que ñooñu aussi ñu Parce que je vais vous dire, c'est ça, c'est comme ça que, que fonctionne effectivement un pays. Mm -hmm. Il y a ce qu'on appelle, qu'on essaie de, de développer dans le domaine sénégalensis, mm -hmm. l'aspect effectivement de la notion du volontarisme, mhm. qui effectivement devrait être quelque chose de payant. Mais permettez-moi de revenir aujourd'hui sur une chose par rapport à la gestion hospitalière. Mhm. Mhm. dans la réforme hospitalière de te ci religion la bokk ne woon naa leen lii amu fi yoon un conseil de ministre à quoi cela sert il faudrait instaurer dans les, toutes les structures de santé ce qu'on appelle des conseils interne de vérification de recettes et dépenses loolu boo ko ci defee ñu tegu ci yoon mbir mi day dem loolu daal mooy ordonnance hôpitaux yi tey amul autre chose d'accord dinañ ci dellu siwaat léegi Pape Daouda de euh, Alassane Sène hmm, kon tey Sénégal ñu toll ci réew moo xamante ne problème planification kon posé wu na problème organisation ak méthode posé wu na yow yaa ngi diriger retraité yi nga xamante ne yéen seen côté boobu am na leen lu régime président bi defoon mooy plan Sésame bi muy loo xamante ne tey am na lu mu jëriñ ki dem ba mënal tul boppam wala mënaluñ ko defal dara ci côté boobu tam ñu xalaat ki nga xam mu nga retraite xalaat encore ki nga mën a la bulgul boppam dara ñu ne gratuité des soins mais loolu itam dañuy wax ni nañu may lu ñu moom parce que itam boo ne gratuité des soins am na loo war a jox hôpitaux yi pour ñu attan itam mu ngi indi ay bor comme sante mënut a nekk lu gratuit sinon hôpital bi day taxaw pour sauver le titre de travail boobu ak nga xam day jëriñ nit ñi est que tey laajul nag itam sacrifice yoo xamante ne ñi ci kaw war nañ ko def pour mën a jëriñ askan wi bu dee ñoom ñoo leen tax a jóg. waaw euh, xam nga loolu état bi def politique la rek xam nga état toujours moom surtout bu nu jëmee si ay élections ñoom lu nu mën euh, teg rek pour nga xam ne daanu jàll daanu jàll ndax tey déjà bu ne gratuité des soins euh, ay plan Sésame nit ñi dem plan Sésame yooyu nga xam ne tey da nga waroon delloo xaalis hôpitaux yooyu di leen jël en charge hôpitaux yooyu aussi mënuñu jël plan Sésame plan te aussi yow xaalis bi nga leen waroon jox joxu leen ko parce que foofu rek laa d'accord ak yow ni état bi am na foo xam ne dafa fauté aussi parce que yenn yi dafa yomb nag trop ku feebar yi na danaa la faj ki euh, la yaa ngi kardi xaw ma lan mutuelle yi de santé yeeg yooyu plan Sésame euh, retraité yi sax li lay wax même IPRES bi nga xam ni tey jii retraités yi nga xam ni ñoom dañu am au moins am na nañu seen réserve plus ou moins de soixante milliards yoo xam ni saa yi ma nga fa ñu teg mais réserve boobu duñ si laal réserve boobu dañ ni dañ ko fay teg en cas de cataclysme bu amee tey réew mi doxoon guerre wala leneen ak leneen ñu toog amuñu lu ñu fayee foofu la ñu jël léegi di fay mais loolu même. kon kon du ñaan ñu fay. parce que <laughs> xam ko kenn ñaanu ko fa jëfandikoo. Hmm. parce que ñoom bu ñu amoon ay bu ñu doon ay visionnaire. Hmm. loolu dañ koy dugal si banque mu générer ay dividende hmm. wala boo ñu si créé leneen. waaye di wax kii dañ koy teg yàlla buñ ko fay yoo kooku kenn ñaanu ko yàlla. kon donc muy benn kaaboo boo xam ne am na. IPRES si boppam rek yaa de problème boo fa demoon tey jii suba si ba fekk fa malade ya ku nekk am na ñoo xam ne sax dee nañu ba pare. ndax euh, benn affaire dafa am boo xasee ba retraité Sénégal moom euh, kooku Ousmane. Mhm. Euh, dama lay ñaan rek yàlla bala ngay retraite yàlla na la yàlla def si yeneen condition yi. retraite déjà metti la benn boo retraité la nga doon am presque déception bi nga jëkk am foofu syndicat yi laay wax. Mhm. moo tax jour dama lay interpeller mhm. parce que. seen kooku rôlu syndicat la. Mhm. travailleur bi buy liggéey yéen syndicat yi da ngeen war dem IPRES di xool ndax ñu ngi koy cotiser mhm. da ngay gis ku dem ba euh, retraité rek ñëw ñu ni kenn mosul a cotiser mhm. fekk déjà euh, am na fi Ablaye Wade am na fi société yoo xam ni yu mel ne ay RTS ay Sotra ay xawma lan moo leen versé quarante et quelques milliards pour ñu bénéficier seen ay retraite mais bi retraité amul woon dara kon kooku rôlu syndicaliste la war il faut ay délégué yoo xam ni. seen rôle mooy suivi personnel bi au niveau de l'IPRES ndax ñi ngi leen diversel tey jii am na ñoo xam ne sont devenus fous ndax euh, dañu fayeeku rek dof am na si ñoo xam ne tey jii boo demoon ba euh, say soxna génn àdduna mais fépp foo dugg bëgg am jabar sax ñu ni ah seet que retraité la nelaw ak yuut rek lañ fi nekk <laughs> mu retiré <laughs> mënu retiré kon donc retraité gis nga loolu rek ñu teg sa bopp isolé la loolu rek rey na nit mm-hmm. kooku rek rey na nit mm-hmm. dan société bi daf lay teg à part bokkatoo mm-hmm. ci sa famille la jëkk commencé waaw léegi xale yi sa sët ngay seet boo amulee sët nag yow jeex na c'est fini dem nga garage da ngay waxtu waaw jabar moom dootoo ko am te li ma jaaxal nag mooy retraité Sénégal ñoom bëgguñu ñu takk si xale yi te pourtant màggatuñu tubaab yi dañu ñëw di fi takk xamuloo leen problème la waaw waaw muy problème boo xam ni kon donc nga xam ni déjà xoolal société bi fi mu la teg rek en tant que retraité bu feebaree rek problème mais dégg nga c'est la mort mm-hmm. kon donc états généraux mm-hmm. de la santé je crois que kooku lu ñu war a def la bu mm-hmm. boobaa nag ñu boole si doomu aadama yëpp ñuy gravité au du ndax santé moom boo amulee santé benn état du développé émergence bu ñuy wax santé rek a mën a tax. moo jiitu bu jiitoo. ba pare nag émergence doog tegu si yoon di ñëw. mais bu nit ñi feebaree. jeunesse boo xam ne déjà euh, amatuñu benn perspective. ñi ngi dugg si gaal yi. ñu ngi agressé. ñi ngi def sudul noonu. te ñooñu ñoo war a relever société bi mais fu ñu jëm. su boobaa problème am euh, mais y' a y' a des donc je crois que euh, santé. war kooku état bi moom daf si war veiller daf ko war a veiller comme la prunelle de ses yeux. Mhm. parce que sans la santé. rien ne marche kon donc muy loo xam ni dem si attiré waat attention kii mhm. te jo euh, man masuma gis ngeen def grève te ñu ni dañu fi dugal personnel boo xam ni ñii ma xamuñu santé mosuñu jàng déedéet mhm. yéen bu dul motivation rek ak leneen rek loolu rek ngeen di xeex mais mosuma leen gis ngeen grève ni tey ñu fi recruter ay balayeur lañu woon wala mosul def santé mais bu boobaa leen ko def kon donc ba tey yéen tam am na loo xam ne mi ngi am si structure de santé yi yéen vous êtes complice ndax yéen tey vous êtes da ngeen war a nekk ay avant-gardiste bala dara di am da ngeen war a jëkk taxaw waaw parce que gis naa ñu def que à saint am na fa médecin bu fa newoon mais da nga doon grève yi na fi jóge na fi jóge na fi jóge grève bu dul jeex waaw loolu tax du ngeen ko def nag ñi nga xam ni ay politiciens la di fa indi rek ay ñoo xam ni ay jàngunu xamunu dara si médecine nekk fa bërki démb maa ngi lay wax dem na hôpital am na si femme boo xam daf doon ak waroon accoucher mu ñu koy négliger di ko négliger ba biñ koy jëm sauver fekk doom ji liquide amniotique bi da naan na si mm. ba noonu la décédé mm. mais xam nga muy cas yoo xam ni buñ dee wax ni. Mhm. loxolu yàlla yenn saa yi du ndogalu yàlla. Mhm. loxo doomu aadama la. Mhm. ay nit ñu nekk fële di eh, amee seen ay emaay. di defar seen wee yow nit ki di tëdd fii di souffrir di yuuxu. ngeen koy seetaan. mais loolu nga xam ne wax rek wax rek mën na koo soulager. soulager ah eh, yooyu daf fi nekk te bala mu fi gaaw jóge ah man de defe naa ni ku guddul fan trop. doo fekkee yenn yi mais nag normalement Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba tey. raw si pays africain euh, la woyof. jiitu woon fi ba tey jii yu bëree baree bëri ñëpp raw nu mais bu ñu defoon ni États-Unis ak ay France di def moom wax na ko léegi. Mm-hmm. Euh, Europe am na si yoo xam ni sañuloo ko. man sama doom nekk na Europe feebaroon. mais nee na ma papa man nekk wuroon Sénégal dee naa nee na yóbbu nañ ma ba hospitalisé ma ba faj ma ba opéré ma ba pare di dogaaj seet ndax am naa këyit ak mën naa faju mhm. mais loolu loolu la. bu bu laajee ñu tëj la après sax nga xam ne wér kaso. <laughs> waaw mais mais loolu la da ngay sauver doomu aadama yi. ba pare nanoo respecté doomu ndax tey jii chef d' état yii fi nekk ak pers ñii. aspirine sax ak euh, euh, asporo bu ko bëggee naan. Mhm. ak colifidrine yooyu fi amoon. Mhm. France la ñuy dem. France la ji ko. kon ku deete te deelewuñ eh, seen yoon ñoom seen yoon ne aussi doy na waa kon eh. léegi ñu yaakaar naa balaa ñoo relance waat ñu mën nañoo déglu ay éléments yu ñu Théodore Semedo indil mooy. yaayu ki nga xamante ne dafa ñàkk bakkanam di tudd faatu Kaba mooy yaayu ki nga xamante ne mooy yaayu Aïcha Diallo am na itam docteur Ababacar Diop mu ñu tudd ci hôpital bu Pikine nga xam ne itam moom ñoo nekkoon ki nga xamante ne moom la ñu tudd ci mbir mi ci urgence boobu ak opéré bi ñu déglu ñaari élément yooyu ak régie bi nga xamante ne Mamadou Diouf moo fa nekk mu tegal ñu ko ñu déglu ko rapidement euh, door a relancer waat débat bi xam lan lay jur ci ñaari parti yooyu saboda da ke yawan wani wanda mutumin ne ne ya kuma mata ba a bi ne ba ai sa dafa daanu ci kaw étage ma daw ne bala na ko poste santé ñàkk ñoom ñoo ñu wax nan ko yóbbu urgence bu cancer yi dama dem ba pare ñu da ngay jël rang ma ne ko bi ñu déedéet cas bi c'est urgent parce que dafa daanu ci bant bi bant doo ko ci kanam dañ koo négligé fàtte ko fàtte ko fàtte ko ba xaw xaw ma sa ban heure man lay génn ma ne ko docteur doo ñu xool malade bi xanaa fàtte ngeen ma ñu ne fàtte ñu ne de ñu ngi ñëw ba toog ba yàgg encore ëppul une heure de temps ma génnaat ah docteur fàtte ngeen ma madame fàttewuñu la da ngay dem toog ñun ñoom ñu bari fekk nañ ma foofu ak ñoom sax indi na malade yu bari indi nañ seen malade après dugal ko oto yóbbu ko maltraité yi accouché la même chose jigéen yi ñu ngi fa di accouché ba ñu ne bàyyi ba fa bopp doomu génn ba génn nga doguñu woo ci suuf lañ lay tëgg dem togg di puudar di mati ba bopp doom bi génn ñu togg lay wax boo boo fekkee nga laalu bopp doom ma doog ñu woo ñu ñëw kon ma bu ko nekk problème xaalis ndax li ma ñëwee rek yëpp dañ ma laajte li ma yóbbu xale vendredi samedi ci guddi ñu ne ma il faut ma def euh, échographie pour xool banque bi fu mu laal ñu ne ma ne ko ñaata mu ñu ma quinze mille docteur Kandji moom ma ko wax négligence moom loolu moo tax may ñëw toog tey di wax non assistance en personne duñ ko wax directeur docteur lañ koy wax donc man damay def ba nga xam ne bi sama service nga xam ne service d'urgence damay remplir toutes les conditions pour mun a jël en charge nit ki su ma ko mënul du ma ko def te maa ngi défier koo xam ne ki ñëw na hôpital ñu ni la balaa ñu lay faj da ngay fay man maa ko wax man docteur Diop directeur wax ko man maa ko wax parce que xam naa li fa nekk pour ma jël en charge xale bii nag ni mu demee danaa ko wax comme nu mu demee dossier médical bi mi ngi nii ma téye te comme nu ma waxee danaa def dérogation ci secret médical bi parce que dafa am problème il faut que ñu seetal sunu der xale bi ñëw bi mu fi ñëwee àjjuma si ngoon ñu xool ko a defal man ñu woo ma benn xale bu fi nekk bant daf ko jam muy demee cabinet biir bi dafay metti bi ma ko xoolee ma seet ko gisuma fenn fu deret génn boo laalee biir bi bu metti examen yi ko war a defal def nañ ko yépp ñu defal ko échographie mais gisuñu ci lenn loo xam ne li waroon na tax ñu opéré ñu jël xale boobu ñu mettre ko en surveillance àjjuma ci guddi ñu yeewu suba muy samedi ñu xool ko biñ ko xoolee mu xaw a tane bi mu xawee tane moom ci boppam boppam sax a wóor ñu garder ko ñu surveiller ko ba kii daal il faut que ñu yóbbu ko comme li ñuy waxee ci suñu jargon exploration ñu yóbbu ko opérer ko analyse de sang yi dafa amoon problème bu ndaw boo xam ne bi il fallait que ñu xool est-ce que am na wala amul biñ ko vérifier bu baax si lañ ko opérer ñu teg ko opération bi ñu ko def samedi ci guddi samedi lañ ko opéré ci booru vingt une heure vingt deux heures ba ay booru une matin deux heures ñu pare ñu yóbbu entré ko chirurgie bi mu demee chirurgie le dimanche matin ñu yeema ni ma ah xale bi nga opéré woon kat dafa am ay problème bi ma ñëwee biñ ko xoolee mu nekkoon en état de détresse ñu jël ko daal di koy yóbbu réanimation biñ ko yóbbu réanimation ñu hospitaliser ko foofu fa lañ ko toppatoo ba ci ngoon si si la gaañu amul benn dërëm bu ñu laaj yaay ji defal nañ ko écho jox nañ ko ay garab hospitalisé nañ ko opéré nañ ko te mënul wax ni am na dërëm bu mu joxe. Hmm. kon élément yaa ngi noonu yoo xamante ni itam euh, ku ci nekk ñaari parti yi indi nga sa version ci mbir mi mu mel ni liñ fi jot wax yëpp mel na ni am na lu mu ci confirmer lu bëri loo xamante ni ci wàllu taxawaay ak wàllu ak ak yooyu li ci mën a am daal mooy rek ne euh, joxe nañ ko lu ci nekk liggéey bu ne dina am accident dina am yoo xamante ni itam. peut-être nattu lañ ko mën a tuddee yooyu yëpp bokk ci li nga xamante ne ñu ngi koy dund ci biir hôpitaux yi parce que lii dama du cas bu yàgg nañ koy dund ci biir hôpitaux yi tey nag ñu toll fii tey Souleymane Diomane bi nga déggee ñaar réaction yooyu tey fan nga yaakaar ne fa lañ war a taxaw nag pour lii yëpp jóge fi wala mu nekk loo xam bu amatee nit ñi xam fi ñu koy teg. Euh, merci Ousmane comme ni ma la ko waxee rek. Euh, damay wax tey maa ngi wax xaw ma ëllëg ndax dinaa ko fekkee. génération yi peut-être image bi dinañ ko seetaan dinañ dina doon loo xam ne ñoom dinañ ne suñu am na ku ko waxoon fii politique de santé hospitalière tant que amul li ñuy def nii yëpp du sotti il faut que ñu teg ko ñu ne lii lañ horizon bi ñu décliné ko ñu xam fu ñuy jëm lan la lan lañ bëgg def ci hôpital responsabilité yi ñu créer service yi situé li Pape di wax ci conseil d'administration mais ça peut recouper avec mon adhésion moi ça me pose par de problème parce que je moi je ne vois pas l'utilité du conseil d'administration moi je le vois pas en tout cas man gisuma ko donc loolu yëpp waxtaan la war a doon parce que ay nit ñoo foofu conseil d'administration yi nekk ci hôpitaux yi li ci ëpp lan la ñuy def dañuy xaar ba fête jege si ñu convoqué conseil d'administration per diem ñu am seen cent cinquante mille francs seen deux cent dem préparer seen ngénte et seen seen seen seen tabaski seen korité seen koor yooyu la réunion xoolal hôpitaux yëpp nangu lay tous les hôpitaux. Hmm. Oh, ñooñu ñëpp conseil d' administration dañuy tenir seen réunion à la fête à la veille des fêtes. Hmm. conseil d' administration yëpp l'hôpital de cela ñun ñu dugal ñuy liggéey di dugal recette di kii mais duñ ko gis. redistribution xaalis bi nag. Hmm. ñun suñu jabar yi bu ñuy demee marché kenn du leen may jën. na nit ñi xam loolu. ci liggéey bi lañ ko yaakaare. sëg may politiciens ñooy tedd ci ci politique bu ñuy def asuma ñun ñuy liggéey. nekk ci ci malade suba ngoon amuñu vie de famille kon nag suñu ndàmpaay nga xam ne nguur gi daf ñu ko war a jox nañ ñu ko jox ba mu jeex takk bu ñu ko joxul ñu diggaale ko ak moom loolu duñ ko wax di ci ruus liggéey nekk ci bakkan di ci wasulu ak wante nag njaboot la ñu yore du ko dundal kenn du ko dundal suñu place kon nag nañu nguur gi li mu li mu li ko waroo suñu suñu diggante ak moom na ko def ñun li nga xam ne mooy suñu obligation mooy liggéey mooy liggéey. et on n'a pas obligation de résultat par contre on a obligation de moyen et moyen état moo koy joxe. ñun amul kenn ku mën a faj malade nee la malade bi dee wér kenn mënu ko. kon loolu kenn du ko kenn kenn duñu ko santaane. lu ñu santaane mooy ñoom ñun nañu jël malaat bi respecté ko avec sa dignité ñu faj ko ci condition yu war ba keroog bu muy dellu ci njabootu. loolu obligation la ñu am. Ousmane. Mm-hmm. Ousmane jël nga damay wax secteur santé bi ya y a trop de problèmes à l'hôpital santé yi ak poste de santé yi ñooñu problème yi bëriwu fa mais problème bi hôpital la li Pape wax il faut que dans les ñi nekk Fongolembi ñi nekk dans dans l'intérieur du pays ils ont besoin des mêmes soins que ceux de Dakar ils sont de la dignité. mais ñi jógee fii aussi. dem ci centre yooyu war nañ nekk dans les mêmes conditions que ñu nekk. Dakar ñu nekk Dakar hmm. loolu la ñuy wax. wala plus versa hmm. c' pas parce que yaa ngi yaa ngi Tambacounda ko waroo bénéficier des mêmes avantages que celui de Dakar. Hmm. du c' est pas normal dans un état. moo xam ne responsable lañ. waru mun a am. parce que boo xoolee ICP yi ñoom. li ñu boot ci ay dëkk heure bu ne ñu yee la ak nangam te léeg-léeg parfois ci condition yu métti. les responsables mais bu ñu amee problème dossier. dañuy boy poste yooyu ñu ñëw ba Dakar. pour régler un problème de mutation mhm. ou bien un problème d'avancement mhm. bu boobaa ah, sooy dee arrêté ci poste yi. ba këram muy ñibbi si ba këram muy ñibbi si. lu ne xew pourquoi l'organisation la. Mhm. au niveau régional. c'est pourquoi les syndicats avaient suggéré la création des des directions régionales de la santé. pour fixer les travailleurs sur place. on avait même préconisé que dans le cadre du recrutement des établissements publics de santé nañu ne benn commission nationale ñu ne Tambacounda. boo soxla na ñaar eh, eh, juróom médecin mhm. sept sage femme sept infirmier yow bu ñu leen recruter ñu xam ne dañu leen recruter ci budget Tambacounda lañ lay recruter mhm. boo fa demee da ngay toog foofu parce que mhm. Tambacounda moo lay recruter région région médicale Tambacounda moo lay recruter donc foofu ngay resté léegi nag on voit les possibilités de permutation ëllëg bu fekk ne agent bi bëgg na permuter ñëw Dakar wala dem benn zone bu ñu amee ñeneen ñoo wax foofu nga xam ne dañoo demander mutation ñu xool en dans le cadre de la commission ñu def permutation agent yi donc loolu dina permettre permettre mobilité liggéeykat yi lu mais kenn du ñu déglu kenn du ñu déglu nu ñu ci politique la ñu nekk mu le mille cent tour des yoo xam ne ils sont là-bas ils ne défendent que leur rente mmh. mmh. donc loolu mooy le problème le véritable problème du secteur de la santé. Mhm. il faut que ministre comprendre ni ñun ay partenaires la on a des solutions pour pas mal de problèmes. Mhm. mais il faut que mu toog ak ñun on lui on on lui préconise des solutions c' à lui de prendre ou de ne pas prendre. mais au moins moom mu déglu nit ñi nit ñi wax ko lan la ñu suñu gis-gis ci fi. te Ousmane mënu ma jeexal ci lii pour wax la ne loo xam ne. Mhm. dafa il faut mu wax ko. CMU CMU état nous doit 7 milliards. les structures quand je dis nous c'est les structures de santé. couverture maladie universelle couverture maladie universelle 7 milliards la ñoo amee ko heure supplémentaire 3 6 derniers mois yi enveloppe bi jeex na pour hôpitaux yi 2 mois ci des année bi jeex. Mhm. bu ko ministre bi fayul heure supplémentaire yi. Mhm. dans 2 mois ah ngum kii lay doon de mhm. xam nga xam nga li tubaab soo dina kankurang. Ah. ci la ñuy mbe jafoo taalal jafoo taalale man ni ngol kaaf man mbe jafoo taalale mbe naaɓe lawan na woon kon nag na xam loolu hmm. bu ñu yeggee daal bu ci la ñuy mu nekk taa il faut que mbir mi leer ci moom hmm. que bu mu ci tolloo defu ko ñu ngi ci biti rek ñu ne ci parce que coow li am tey eh, kii wax ko docteur wax ko man position docteur laa jàpp hmm. docteur Diop parce que ku ma xam la xam naa eh, dara jarul ko wax loo xam ne newut te ku waxoon naa leen ni fii ku koo xam ne dafa dafa dëggu trop te ku nangu sonn ci nit la bu waxee lii li mu ni mu ko waxee nii noonu la demee kon daal mën na am ñu gis mën nan la demee ñu gis fi mu daanu te gisuñ fi ñu faqastaloo sori na waaw léegi mbir mi daal mm. daanaka loolu la mais mm. d'accord naa Pape wax naa leen début ko mm-hmm. on est dans un système défaillant je l'ai dit le système de santé est un système défaillant mm-hmm. il un pilotage à vue au niveau des hôpitaux pilotage à vue la Il oh, n'y a pas de Si on ne coordonne pas, les choses, chacun va dans, sa direction. Mhm. loolu mooy indi problème bi toujours daf fi nekk politique de santé nañ ko définir. Mhm. ñu wax ne politique de santé baa ngi nii lii la ñu bëgg a def Sénégal ci hôpitaux yi. Mhm. ñëpp tënku ci ñëpp d' accord ci ñu ne mettre les manières de procédure les protocoles les les hommes qu'il faut. et puis on au bout de quelque temps on évalue il a des évaluations à mi parcours. mi parcours mi parcours ñu évaluer ñu bi. bu ñu nee 6 ñu évaluer ñu seet lan moo baax lan moo baax ñu redresser bala at bi di jeex. Mhm. bu ñu àggee ci année bi ñu nañu évaluation évaluation globale. Mhm. ñu évaluer nit ñi d' accord ci lii na moo baax lii baaxul tant que defuñu ko noonu. Mhm. ñu continuer nii nit ñi jógee seen kër dina suba maa ngi dem hôpital. mais noo du sotti. problème lay jur Souleymane Diomane Mbagnick juuf kon dañoo constaté ne kon yëf yëpp li ñu wax boo amee déficit de moyens. bu amee manque de moyens ci wàllu su ak yooyu ak financier gis nañ ne aussi déficit sax am personnel euh, soignant boobu problème la bu sérieux boo xamante parce que ñu ngi évoqué kaawu Dakar yi mais gis nga ci euh, biti ay ICP yeeg ay yeneen yoo xamante ne ñu ngi appuyer mais problème yi ñu am sax mooy léeg-léeg ñoom dañ lay bindal ordonnance sax pour nga jëm ordonnance il faut nga daw tant de kilomètres loolu aussi presque solution bi ça reste euh, problème bi ça reste entier côté boobu aussi est-ce que tey jotul nag. comme ni ñu waxee programme d'urgence pour développement communautaire ñu fexe nag ba hôpital aussi nekk urgence boo xamante ne dañ koy indi moom boppam urgence ci boppam parce que moom mu ngi war a gérer urgence mais mu ngi ci urgence. waaw jërëjëf Ousmane en fait dama bëgg dellu si rek ci ñaari éléments yi xam ne jàll na. jàll na waaw yaayu euh, xale bi ak docteur docteur Diop. pour wane ne su ma ko dégg dafa mel ni y a deux victimes. la famille de la défunte ay victimes lañu. Mhm. médecin bi aussi victime la. victime de quoi d'un système comme ni ko Souleymane waxee. parce que le médecin man effectivement mas naa ko jël interview benn jour ci fi mu nekkoon wax dëgg yàlla ñu ngi tëral maladie ñu ngi ago ñu ngi ñu ngi ñu ngi onk noonu mu wis li gis naa liggéey bu am solo bu mu def mais le problème mooy est-ce qu'il a de faire son travail puisque ku demoon ci euh, urgence wu fi ñu tuddee urgence ci hôpitalu Pikine bi vraiment studio bi moo ko ëpp booy seet presque ay ay genre cloisonnement la yoo xam ne wax dëgg yàlla c'est pas euh, adapté pour que mu mën a indi ñu mën ci def au moins cinq six personnes personnel bi aussi même chose donc foofu defe naa ne euh, li ma doon wax toujours au début que ne problème de communication alors ñu dellu si li nga xam ne moom mooy personnel de tout temps on a toujours interpellé ministre bi fi ma a jaar problème euh, personnel dañ naan la recruter nañu 1000 personnes ok 1000 personnes mais personnes ñan lañu est-ce que 1000 personnes yi ñu ñu soxla ci santé bi la ou bien 50 wala 10 pour cent ñoo ci santé ñu ci des ñëpp peut-être c'est le personnel de am nañ ci solo trop xeebuma leen mais xaj na li solo bi jëlee mille personnes li ci ëpp solo moo ñu jël ay médecins ay sages-femmes ay infirmiers ay pharmaciens yu meloon problème yi am au niveau des régions mm. yenn saa sax boo ko waxee dañu naan la yow da ngay wax lu la neex mais ñi nga xam ne ils ont eu à rencontrer yenn cas yooyu ay jooy la dañu gis benn médecin boo xam ne wala benn sage-femme boo xam ne dana dugg foo xam ni pour mu jënd gant sax day jël xaalisam pour daal di koy utiliser parce que amuñu benn kii donc comme ni ñu ko waxee sénégalais bi nekk Dakar ak ki nekk jaxaw ak ki nekk Fongoli bi ñoo war a am benn bénéfice yow même ko moo tax dama naan li ma gën a tiital booy bu ñu nee CMIC bi tey ji bu ñëpp adhéré woon ci mutuel de santé yi dugg ci ñu ne léegi faju jot na nga dem doo fekk médecin doo fekk euh, sage femme doo fekk dara lan la ñuy lay donc problème bi foofu posé na wu problème médicament je pense que am na ci jéego yoo xam ne état bi ñu ngi koy def avec na sur le système jege si naa ak yegg si naa yooyu vraiment def nañu ay jéego mais nag duñu dem ay rupture yenn saa yi mu am ay rupture dem nañ fa décentraliser ba nga xam ne au niveau de chaque région am na benn PRA bu fa am boo xam ne mooy pharmacie régionale bu fa am boo xam ne dina mën a di distribuer kii mais le problème yëpp yëpp yëpp Ousmane mhm. moom mooy problème personnel personnel Matam barki démb la fa am sama ñu fa jógee nee nañu amuñu pédiatre région de Matam yëpp amuñu pédiatre amuñu un réanimateur urgentiste xalaatuñ ko donc ça veut dire que tout est concentré à Dakar te peut-être Dakar ils ont plus de moyens que ñett ci àll bi barki dem rek nga commencé benn laboratoire di dimbali Sénégal leen leen yóbbul ay euh, clinique euh, diabète ak hypertension dans les régions ñu commencé ko décentraliser mais da ngaan gisu jógee fu Fuuta ñëw ba Dakar pour problème cardiaque donc yooyu c'est c'est des choses yoo xam ni bu fekkee nit ki vraiment da nga ne damay liggéey santé Sénégal le Sénégal ne se limite pas à Dakar mm-hmm. c'est au plafond du Sénégal parce que dañuy fay impôt ay citoyens sénégalais la ñu mënuñu dëkk feneen fii la ñuy voté fii la ñu juddoo donc il faut ñu régler problème boobu tant que le ministère réglé wuñu problème personnel bi et puis les personnes qu'il faut nag laa wax personne qu'il faut parce que waxuma ne nga jël koo xam da nga ko jël taaba taaba ko rek dugal ko daal dina ko ne te te yeggul les recrutements ñu leen di seet ça aussi damay interpeller souvent les syndicalistes que ñuy ci ci yi peut n'est-ce pas Souleymane voilà mais c'est-à-dire que normalement waroon ngeen ci man waroon ngeen bokk ci commission bi pour ngeen di xool par exemple parce que aussi comme ni ma ko waxee médecins yi euh, ministère am nañu cartographie xam nañu ñan euh, euh, personnel ñoo manqué bërëb sàngam. Mm-hmm. mais duñ ko def il faut na tey ji bu fekkoon par exemple tamit Souleymane Diomaye bokk na ci commission boobu daal ne attention à telle région amul dara amul nangam nangam bu fekkee ci taabal ji xaj na dañ ko wax. Mm-hmm. mais duñ ko def peut-être dañuy rek dans leur coin seet affaire copinage yooyu jugal dugal dem après mel mm-hmm. donc loolu vraiment nekk na ay jafe-jafe yoo xa ni il faut que ñu yaatal commission boobu pour que au moins région yi ñu leen ay spécialistes. jote leen ay matériels yoo xam ne wax dëgg yàlla nit ki du jógee Tamba ba Ndakaaru di faj loolu vraiment dafa nekk loo xam ni déjà le trajet rek mën na la rey. mën na la rey voilà kon Mbagnick Diouf. Euh, Pape Daouda jën ñu gis ne kon l'homme qu'il faut mais lom kilifoo itam boo ko déggee mooy ki jàng métier bi mais mu am aussi taxawaay boo xamante ne aussi dina ko jaral parce que yow da ngay dem yàgg da gis yeneen docteurs yi yéen a ngi cité ay nit. da nga yaakaar na ñoom du ñuy feebar ndax toujours ñu nga fa pourtant dañuy feebar ñëw faj mais ñemooñu wax ne dañoo feebar parce que ñoom ñoo war faj mm. na am keneen ku ko remplacer personnel bu doy ba nga xamante nañ relayer wante ba kay itam am na a faj dina am lu feeñal ci liggéey bi yooyu yëpp nag nekk tey loo xamante ne commencé nañ ko war a harmoniser am nag une politique sociale ci mm. société bi mm. mais itam ñu am loo xamante ne motivation la ci nit ñoo ñuy liggéey effectivement damay ñëwaat ci li nga wax l'homme qu'il faut dëgg la à la place qu'il mhm. mais qui fait ce mhm. loolu lañ ko ci rek mais aussi nit ki fi nekk war fa nekk war a def tamit li mu war a def mhm. mais bu ñu ko tënkee rek j'espère que ñun lañu soxla war nañ ko mën a am dëgg la lu Ibrahima wax ñu ñëpp ni Souleymane excusez-moi Souleymane wax ak euh, doyen Diouf je pense que ñu ñëpp on est là effectivement dans le souci que de de bien fair et de mieux faire il faudrait vraiment que li nga xam ne ni mooy problème yi ñu évoquer ko pour jéem a essayer de trouver les solutions tout à l'heure c'est vrai il y a un manque un manque criard tey jii jël ñu ne dans par rapport à l'OMS on dit un médecin pour mille personnes mm-hmm. mais tey jii un médecin tey jii bu xëy see tey jii ci ci benn hôpital mu war def de huit heures si l'administration c'est de huit à seize heures mm-hmm. mu def huit heures seize heures keneen war de seize à cinq heures mm-hmm. kooku ñaata malade tey jii il faut mu am cent wala deux et aussi dans les hôpitaux les infirmiers amuñu droit laal yenn yenn il faut le dire. waaw y' a que le médecin qui a le droit et l' de mhm. toucher à un parce que dañu autoriser infirmier ba fële ca kaw ba. parce que dañoo gis ne. il faut que mu nekk waaw mhm. par rapport effectivement à la politique. Mhm. et aussi à certaines lois et législations. il faudrait aussi que état bi aussi ñu jéem a xool. harmoniser des médecins ñu jéem de pensée. Mhm. ce n'est pas une méthode de travail. Mhm. et aujourd'hui en Afrique il me semble ou bien au Sénégal même aussi dans notre structure de santé il y a cet aspect méthodologique. Mhm. qu'il faudrait essayer d'organiser et de réorienter. mais pourquoi aujourd'hui je suis infirmier chef de poste. dans une structure de santé. pendant maa ngi faj maa ngi kii et que les gens même dem ba am mais si je suis admis dans un dans j'ai pas le droit on va me reléguer encore à un autre rôle mhm. aw ma droit xool malade bi mhm. parce que effectivement parce que c'est le médecin qui est habilité effectivement à faire ce travail ci contexte boobu mhm. je pense que yooyu ça nécessite defaat les états doyen c' bien c' une très bonne idée. Mhm. mais je pense que c' est ce qu'on appelle un éternel recommencement. Mhm. delluwaat ginnaaw la on ne peut pas réinventer la roue. Mhm. le système est déjà là di bàyyi seen poste yi ñëw di recycler waat. di recycler waat pour que c' est une perte de temps. aujourd'hui la population du Sénégal à cet instant T nous sommes à millions presque habitants. mais qu'est-ce qu'il y a maintenant lieu de faire pour jéem permettre aux gens d'avoir l'accessibilité des soins. la CMU, le plan Sésame qui a laissé d'être 20 milliards de, de, de dettes hospitalières que l'État devrait rembourser, la CMU, ce sont de belles initiatives, mhm. mais qui pèsent lourd effectivement pour le système de santé et au personnel soignant. Mhm. Là, c'est une réalité. Mhm. mooy li ma waxoon rek gis nga nit bëgg def doo ñëw rek naan damay def benn affaire nii dama non non il faudrait. je pense que, même la CMU7 c'est une bonne idée. mais on pouvait mieux faire. c'est effectivement faire doter en sorte que gis nga l'initiative de Bambouk de 1981 il n'y a pas meilleur mais nit ki soo fajoo ba pare qu'est-ce que vous avez besoin da ngay am ordonnance mais les produits pharmaceutiques des officines coûtent excessivement cher mais il y a ce qu'on appelle les génériques est-ce que aujourd'hui les populations sont préparées même aux génériques est-ce que garab bi di jël cinquante mille boîte même na xel nit ki de manière sociologique mais am na yoo xam ne aussi les gens non plus cette confiance là. accès bi sax c'est ça je pense que là c'est même si c'est ba jar woon def. Mhm. je dis que la CENI parce que déjà ça va créer beaucoup de beaucoup de problèmes. Mhm. dama ne woon li gën a mooy permettre effectivement aux populations d'avoir l'accessibilité des soins. c'est mhm. confusant. réduire le réduire effectivement le tout. réduire certaines taxes. par rapport aux aux officines. parce que dëkk la santé elle est primordiale. nit ku bu feebaree bu ñëw hôpital war nañ ko seet dans les meilleurs délais. mais nag bu dee benn médecin kese. maintenant aussi comme aussi les hôpitaux doyen Joumane euh, Ibrahima Mané mhm. Souleymane Balma mhm. comme les hôpitaux ils ont ce qu'on appelle leur administration et leur gestion autonome mhm. maintenant quand je suis directeur un directeur un directeur d'un hôpital c'est c'est un gestionnaire en santé publique c'est un gestionnaire de santé mais lui qu'est-ce qu'il doit faire il doit se dire ok je suis tey lii nii na demee nii je pourrais effectivement travailler essayer jéem a fa aw 4 à 5 à 6 docteurs di jéem a consulter ça s'est passé au niveau, au niveau de l'HS on avait docteur professeur Mondiaye on avait docteur Maguette Dieng on avait tel tel tel docteur et ça sous sous le contrôle et l'administration de docteur El Hadj Malick Ndiaye il y a de voyants de voyants sénégalais de voyants administrateurs mm-hmm. mais aujourd'hui il est dit que la la la la le rôle régalien quelque part qui tient à la fonction publique c'est la mutabilité mm-hmm. même tu es là tu fais de très bons résultats un bond de, de, de, de 5 ans, tu dois pousser, passer mhm. et, et, donner la place aux autres. Mhm. Et je pense aujourd'hui, doyen, il faudrait une certaine restructuration. D'abord, ñi nga xam ne dañuy jël mhm. état buy jël un syndicaliste de la santé bi casse les problèmes de la santé ak ñi nga xam ne lay liggéeyal mais war nañ ko boole ci ci ci biir ñooñu parce que aussi dossier bi ñu xool ni ki si cette personne là requiert de toutes les compétences aujourd'hui on quand on qu'on doit administrer quand on doit effectivement siéger dans une institution de santé day fekk yow pare nga ba pare mhm. une personnalité ce qu'on un prêt à l'emploi mhm. mais bu fekkee ne loolu amul moo ñëwaat foofu nekk ci kii yi raxas ay table banc jékki-jékki di jàngaat noonu jékki-jékki di essayer di piquer de gauche à droite ba jékki-jékki du jour lendemain portant effectivement une blouse blanche au nom de quoi loolu aussi il faudrait que ñu xam ni c'est pas comme ça que ça doit fonctionner mm-hmm. aujourd'hui l'État a un rôle mm-hmm. très important c'est quoi c'est investir c'est soutenir encore une fois de plus mm-hmm. même si il faudrait le dire mais aussi ñoom yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci structure de santé yi je vous demande pour l'amour de Dieu et pour le peuple sénégalais vous les syndicalistes de la santé vous êtes des Sénégalais des de famille comme de grâce de yërëm leen nit parce que j'ai oublié une chose saa yoon nekkee en en grève il y a des populations qui agonisent et qui périssent te ñi ñi ñi ñi sonn di feebar de dee c'est pas l'État ce ne sont pas ces ces ministres là ce ne sont pas ces députés ce sont c'est le bas peuple et quand on est là pour parler au nom du bas peuple mhm. et qu'on est issu du bas peuple connaissant les réalités du bas peuple il faudrait dire aussi à l'État de s'investir davantage effectivement de vous accorder un moment un instant toog waxtaan jéem a trouver ensemble Euh, les les solutions. Mhm. mais nag chaque fois c' est ça su kenn demee kenn ñëw c' est ça le Sénégal. Mhm. certes aussi il faudrait dire que la santé n' est pas un domaine qui est productif. Mhm. comme l' éducation. t'as mettre des milliards payer les salaires entre autres. amul lu ci état di gagner en redevance ah, mais aussi c' est ça le rôle de l' état. de l' état parce que doit veiller à ce que toutes demande aujourd'hui à l' état. là une demande de faire aussi en sorte que. maanaam fépp fu am poste de santé. ñu mm-hmm. qu'il y ait qu'on puisse recruter plus de médecins. Mm-hmm. plus de sages-femmes. Mm-hmm. et plus effectivement d'infirmiers. on en a besoin. arrêtons de de de nous donner des. des des des trucs comme ça ces gens-là des brancardiers alors on en a besoin. a besoin du, du personnel soignant du matériel soignant entre autres choses loolu on en a besoin aussi de relever tous les plateaux techniques. aujourd'hui on devrait faire en sorte que. bépp hôpital am ay éco-doubleur waxuma benn. aujourd'hui au Sénégal. dans toutes les yëpp am ay écho am ay appareil gynéco obstétrico bu fekk dañu bëgg atteindre effectivement et diminuer de manière drastique le taux de mortalité néonatale mhm. aujourd'hui en Europe c'est mënoo xalaat jigéen buy am doom di dee mais Afrique fii day am ay cinquante dee ay Sénégal dëkk bu am ñaan la di jéem nax nit ñi. il faut qu'on arrête ce de choses là. et puis buy coûter cinq mille francs aussi dina coûter keneen ki dix mille cinq cent retour loolu aussi xam nga problème accessibilité posé. accessibilité parce que aussi mm-hmm. mm-hmm. parce que boo tee dans les centres de santé il fut temps. Mm-hmm. à la polyclinique tu fais trois mille francs tu faisais il y a certaines réalités. niñ ko élever waaw par rapport aussi à cette organisation là je demande qu'il y ait une certaine organisation. Mm-hmm. je vous demande je demande au ministre de la de mm-hmm. ministre de la santé je demande aux syndicalistes. Mm-hmm. ngeen jéem a trouver la meilleure formule aujourd'hui pour permettre aux populations d'avoir l'accessibilité des soins. des soins ala Cheikh Alassane Sène euh, pour ñu jeexal rek ñu gis ne santé bi. docteur bi lu mu baax baax ak lu mu am am yéene bu la consulter ba pare nee na lii moo la jàpp yëpp yëpp mu ngi mujjee nag ca ordonnance ordonnance ba itam mooy loolu nag mooy problème bi boo ne gratuité des soins. te gratuité de l'ordonnance bokk ci te itam wàññiwuñ taxe yi ci pharmacie wala ñuy jaay produit aussi loolu ça revient au même dañu wax ne rien ne se crée rien ne se donne tout se transforme. Hmm? waaw ni mu ko waxee léegi initiative ko boobu. Hmm. xam nga mais dafa naan dafa am benn type de produit rek bu mu bu jël en charge. Hmm. mais tey jii fekkoon am na si yoo xam ne xëy na dana naqadi def initiative de ko mais initiative de ko boobu lu baax la. ba pare boo dee seetlu euh, xam nga aussi Sénégal euh, dafa am loo xam ni. tey jii ñu bare boo leen bindalee ordonnance ñenn ñi am na foo xam ni garab dañ ko ñu nga falen yubal jëfa jënd ji garab mhm. garab yoo xam ne si mbedd mi na leen di jaaye mhm. garab yoo xam ni seen provenance c'est douteuse mhm. si ay pays limitrophes yi la dugal ay conteneur jaar ko si yenn dëkk yi fii ñëpp état bi xam na nu garab yooyu nu mu ñëwee garab yoo xam ne baaxul léegi nag gis nga la Sénégalais lambda bi nga xam ne amul moyen si ñooñu lay dem te ñooñu nag ñoo lay rey parce que garab yooyu moom yuy reyaate rek la ndax garab aussi dafa am température yoo xam ni si la war ne mhm. mais garab bu ñuy jaay si bedd wala nga am na fii si Ndakaar ñun ñoo xam nañ ko mhm. dangay ngay dox ba yàgg ñun la ndax da bëgg garab mhm. du fi jeex xam nañ ko on connaît kon donc dafa am loo xam ne état bi aussi bu bëggee bu bëggee population am nekk en bonne santé am na loo xam ne aussi daf ko war a xeex réglementation waay waay mais noonu euh, mais gàmmu yi màggal yi da ngay gis gaañ di jaay ni garab mhm. ñi yenn saa yi ñuy rab dogguma la mais am na accident yoo xamante ne parce que nit ki boo jëndee ñaari comprimés gisoo notice bi ñu ne la ko naan waroo conduire oto nga jël ci ñeent ñu ne sa bopp day métti parce que loolu mën na ne makk nelaw nga jël ci ñeent départ balaa gën a tëngëj da ngay parce que médecin médecin ba ordonnance bu mu la bindal demuloo sa structure ba nga xam ne muy pharmacie jënde ko fa mhm. da nga dem gis koo xam ni garab ya kenn xamul fan la jóge mun a jëlal tablette yenn saa yi sax si ay kër la ñuy toog rek mhm. defar seen ay affaire sensibilisation boobu aussi sensibilis wax na si ba tey mhm. te gis nga li ñuy wax nii euh, wax na ko léegi conseil d' yu nga xam ne amul benn njëriñ mhm. mais yéen da ngeen di fexe di fekk bokk si conseil yi ndax boo xoolee tey lu mel ne IPRES UNSAS ma nga fa CNTS ma nga fa ñooy décider mais comment se fait-il yéen itam ay instituts yoo xam ni yéen a xam nu muy doxee ñu ay yeneen nit di di décider à place mais je crois que aussi seen xeex si loolu daf si war a bokk fa ñuy décider si seen ay euh, avenir yéen da ngeen fa war di toog di fekke ndax ñooñu fay nekk sama compagnie gi rek la ay waxkat rek la nu du dul rek la dara wax nga ka bu tabaski jotee wala korte nu ñëw dajee jël seen ay per jëm dem seen yoon mais nan ngeen di seetaanee loolu yéen itam nekk fa gis ko te xeexu leen ko léegi daal gis nga Ousmane problème mu Sénégal euh, état bi dëgg-dëgg am na si loo xam ni ndax mënuloo amal ay structure ay sept milliards ay huit milliards mm-hmm. te joxuloo leen ba pare ba ñoom xamuñu fu ñu koy xeexe mm-hmm. état kenn mënu xeex ak moom mm-hmm. ah, ba tey ni ñaa ngi jël plan Sésame di dem euh, IPRES euh, waxi noppi IPRES sax li ko may chance moom état bi fexe na tout pour dugg si ay réserve ñu bañ. ñu bañ téye ko seen téye rek hmm? yi jóg ñu fii def ay marche. ah waaw comme nee nga état kenn mun taxaw moom réserve yi nañ ca mos a dugg. sa su boobaa itam dugg leen si sax am na si lun si leb. Ah. man yëg naa ko tala yële. ah voilà waaye kenn xamul nu ko lebe. Ah, kenn xamul dañu yeewu daal rek. problème ñëw na te boo ma du fay xam nga nag lii nag. Ah. moom foo koy waxee. kon xam nga ne problème ñëw na voilà <laughs> kon waxtu bi jeex na Souleymane dafa am benn mot booy wax. dama dama bëggoon wax juste euh, hmm? euh, quelques mots Mm-hmm. mooy euh, solution yi la mm-hmm. vraiment di inviter l'État du Sénégal à décentraliser la CNTS mm-hmm. et plutôt le CNTS le centre national de transfusion sanguine war nañ ko am ci euh, ay côté Pikine waaye ba dem ay jam ñaajo parce que ñooñu mënuñu jógee fële ñëpp depuis indépendance ñëpp fu ñu wutee deret foofu benn bërëb boobu léegi waaw waaw xam nga ñoom ñii ñooy def ñii ñooy def prélèvement yi foofu di dem ak di ñëw uh-huh. dañoo bëgg a doon un centre vraiment fonctionnel uh-huh. à l'image du CNTS uh-huh. ñu mën a am banlieue bu mën a ko am mu mën a am côté géejawaay kii beneen bi mooy Sénégal il faut que ñu fexee bu am ay usines yuy euh, defar ay médicaments sérum salé sérum sale simplement Sénégal mënu ko defar boo indépendance ba léegi milliards fu muy dugg te produit yaa ngi fi ñàkk fi dañuy wut dañuy wut jagaani yëpp hmm. yëpp dañ koy wutu bitim réew sérum sérum simple la mu amuñu ko Sénégal mënu ko defar amuñu usine amuñu dara PNA bi donc il faut que ñu des politiques hardies kon nag dans la réforme il faut réformer. même est-ce que carte bi waxal distribution médicaments yi dans le pays est-ce que non xam nga loolu c'est sous le contrôle de la PNA hmm. lépp tous les médicaments doivent passer sous le contrôle de la PNA donc loolu du question lii ñëw hmm. mais ñun lan la ñu war a euh, defar Sénégal war to war na war na egg ci defar léegi ay médicaments donc loolu laay invité état ñu def ko projet ministre bi def ko projet. mu mu jublu ci. mu jublu beneen bi nga mm-hmm. xam ne ba eh, dama koy kii mooy. Mm-hmm. Eh, problème mu eh, lèpre. Mm-hmm. la lèpre. dafa am recrudescence la lèpre. mu ngi feeñal actuellement. Ah, feebaru dama bëgg tamit loolu. ministre def ko cheval de bataille am. d'accord nañu mettre en place les les les commissions. les équipes. qui doivent travailler sur la reconnaissance feebar wàññeeku boobu pour que feebar boobu bañ a delluwaat ci fu mu nekkoon xeexoon nañ ko donc loolu nekk nañ yoo xam ne eh, ak suñu protocole d' accord bi yéen lan tax xam nga ñu syndicat boobu na waaw <laughs> protocole d' accord xoolaat waaw non foo xoolaat accord am na nañ ko respecté doyen di wax ne nañu xool suñu retraite ah. retraite bi dugal nañ ko fa ah. ba am accord ak état def ko lekkat ci des kon ne na ci jublu monsieur le ministre yooyu laay waxal na ci jublu d'accord Souleymane Soumané maa ngi gërëm di la sant Mbagnick maa ngi lay gërëm di la sant Pape ngi lay gërëm di la sant Cheikh Alassane Sène ñu lay gërëm di la sant di gërëm di sant bu baax Oustaz Assane Diouf mi ngi coordonné émission bi ak El Hadj Mamadou Diouf mi nekkoon ci régie bi mbokk yi ñu daan teewlu ñu leen di gërëm di leen sant di leen jox daje ci beneen émission diine ak jamono insha allah wasalaam